noo ngi fas yéene dellusiwaat ngir waxtaanewaat ak yéen li nga xam ne li moom lañ dese woon ci tukki sëriñ bi ca gànnaar ci bandu ñetteel bi xam ngeen ne nag lenn lu ci nekk dégg nañ ko ba mu ko defee nag sëriñ bi dafa daal di jóge foofa dal di ñëw fu ñuy wax xumaat ndax tubaab bi nga xam ne bii mooy tubaab ba yebaloon naaj yi ngir mu war koo lottal si rey ko tubaab boobu dafa ginnaaw ji demee nag da ko nekk lii yëf yéen xewe mu ne ginnaaw mënu ma ko rey nag kon léegi day naa ko woo fii indi ko fi léegi te fii barab bu naqari la barab bu metti la barab bu tiis la su ko defee kon mbooloo mi duñ ko fi duñ duñ duñ ko duñ ko soxlaal dañu daal dem wàcc ko fi. ñu daal li indi nag sëriñ bi xumaag wax nañ ne nag xumaag sax fan sëriñ bi gën a yàggee ci gànnaar gépp wax nañ ne mag ñi léeg-léeg nga gis mag moo xëy dana wax ne am na fa lu mat ñaari at ak lu topp wala sax dina gis koo xam ne dana fa dana wax ne am na fa ñetti at. mu ko defee nag bokk na ci xew-xew yi nga xam ne yii nag xew na foofee fa gànnaar fa xumaag jamono joo xam ne ji naar yi réew mi daa bekkoor lool ba bekkoor bi egg ci jur gi di dee tawati dugg nit ñi ba ñuy faatu méttiitu loole nag tax naar yi seen bopp dajaloo dikk jëm si xumaag fekk fa sëriñ bi ngir di ko ci ñaan lool ba ñu dikk nag ku ñuy wax Muhammad ibn al-Mukhtar al-Alawi al-Hasani wax nañ ne moo jiite woon yoon wa ba mu ko defee nag ba ñuy ñëw ba jub sëriñ bi mu nga xamee ne maanaam ñu ngi bëgg a agsi nangoo naa ci sëriñ Hamza du mu wax ne am na bis sëriñ bi xëy suba cooy génne ak xasida indi woon ko ko ne ko kat xasida gi dama la ci def seere ndax am nay gan yu fi ñëw léegi yoo xam ne ñu moo leen di tax a ñëw ma bëgg nag balaa ñëwee si nga yëg ko yow ba ñu yegsee ba ko sëriñ sëriñ nee na boobu mu fekk mu jàng ko fekk muy wakkaan xaqan alayna nasrul mu'minin ba mu ko defee sëriñ bi jant bi toll ci di cinq ba yëkkatiku mbooloom naar ma agsi ba ñu agsee nag ñu dal di wax sëriñ bi ci làmmiñu Muhammad ibn Muxtaar al-Alawi lu leen tax a jóg ci ak xasida xasida nga mi ngi nii ma tiim wax na ne jamiu bilaadi lmuslimina juduubu wa amma wa amwaahum qad ammahunna nuduubu biha jiyafu lxasra fa amma idaamuha fa biidun wa amma jilduha fa saliibu fa hum fi tanaasi xayratin wa tadabdubin fa fi kulli yawmin rihnatun wa du'uubu wa ma wa ma lahum illa alxadiimu fa innahu makiinun adiimu ljaahi laysa yaxiibu lahu tamaxat absaaruhum wa quluubuhum wa hal lilxuyaara almustatiini quluubu léegi xasida gi dafa nekk loo xam ne mi ngi nii wax gi ci nag ci làmmiñu arab di wéy dafay guddal mbir mi ma bëgg leen ko tekki rek ci gàttal ci wolof Muhammad Muxtaar moom wax na ne bi nekkee ci sëriñ mu ne ko mboolem leen jullit yëpp di dafa bekkoor ndox yi woon ci xur yi ndox yi woon ci biir suuf yëpp ngecc na ba amatuñ lenn lu ñu naan ba soo dee xool dafay mel ni ki àll bi dafa wow komm ba mel ni ay nit yoo xam ne yi ñoo fi tasaaroo ci àll bi ba sax seeni yàq dafa mujj weex dafa dafa weex ngir bekkoor bi te léegi tey ñi fi def kenn ku nekk ñu ngi bëgg a sax fàtte seen borom ñee ñee ngi deng deng ñi ngi gën a mën te waxtu wu nekk ñi ngi tukki ak a ak a dellusiwaat waaye ku tukki ku jël si itam la nga bàyyi la nga la nga fekk fa ngay tukki mooy gën ci sax la nga bàyyi fa nga jóge woon léegi nag njaqare la demee noonu amuñu kenn nag ku dul xaadimu rasulillah ndaxte xaadimu rasul moom i képp moo fi koo xam ne kii ku am daraja la ci boromam te it màggug cër ca boromam ba lu mu laaj boromam boromam dana ko may te na mu ko bëggee borom delloo laajam loolu moo tax lu jël suñuy xalaat yépp wékk ci ko ci yow di la xemmem ci di wax di la di la di la ñaan ci ndimbal te kat ne la wër ni nit ki su gëlëmee amul fenn fu muy mën a xalaate lu la la ca xol ba képp la suñu xol noo ngi ko jëm si jëne si ci yow te it noo ngi taal suñuy doq jëne si ko ci yow kenn ku nekk mi ngi nas mbiram teg ko ci say loxo bis ni ki tey ah te it ñun ñëpp kenn ku ci nekk xam na bu wér-wér na amul lenn amul kenn koo xam ne kii mel ni nga xaadimu rasulullahi ci wàcc ci ci kaw ci kaw suuf bis ni ki tey te it noo ngi lay ñaan nag kon ci sa xam-xam bi la sa borom jox nga xam lu ci ci moom laaj ko waxtaan ak moom diis diis nu ko diisal nu ko suñ lor yi ndaxte mu wuññil nu ko fi saasi ndaxte xam nañ ne kat xettilikaay yi bind yi mu ngi ci say loxo te it wóor nañ ne yow ku ñu xam ca péyub suñu borom ba nga te it ku ñu wuy ñaanam nga te it yaay aji ramm ji ëllëg yaay ramm yaay ramm jaam ñi nga jamono jël ëllëg te it yow xaadimu rasulullah ku am daraja nga te it foo taxawee ci buntu sa borom rek boobee buntu ñoo ko ubbi fa saasa léegi nag ñun ñii noo ngi nii nooy ummatu muhammadin te it yaay xaadimu rasulullahi kon nag feeñalal sa liggéey bi ngay liggéey yonent bi ci noonu te it giñ naa nag ci sama dund ne kat lii ma lay ñaan wóor na ma ne bala maa jóge fii ma la koy ñaane ci turu mbooloo mi da nga ma ko jox ni ma ko bëggee ba mu ko defee loolu noonu la toppee xasida gi ba egg ci ci fi nga xam ne fi la xasida gi yem wax nañu ne ba mu waxee loola ba eggal am na nag ab beneen naar boo xam ne bii wax na sëriñ bi ne ko kat ah damaa gént ci yoon wi gént goo xam ne day dañ dama yoon su ma dikkee danaa ko nettali sëriñ bi ne ko lu mu doon mu ne ko damaa gént ci yoon wi ah ñu wax ne ñu wax ma ne ma am na laay sunu borom di ñuy wax wa kaana xaqan xalila nasul muminina soo ci talifi ak xasida xasida googee su ko mbooloo mi jàngee fu ñu ko jàngee rek xettali ko mbooloo mi ci ci xasida googee lay nekk ma bëggoon nag nga taaliful mi ci xasida ndaxte le lim lim doon lim doon xalaat nekk ci moom sëriñ bi ne ko toogal tuuti ma dikk dal dem génn dugg ci biir néeg bi dal di jël xasida ga indi yëpp ko teg ko ni ñeeñu fasaasa la ko taalif waaye nag li mën na ko ci téeréem sutu moo di wanoon na ko ko moom ci suba wanoon na ko xasida gi ci suba xamal ko ne ko ay gan a ngi fi dikk yoo xam ne yi bu ñu dikkee moo leen tax a jóg kon muy wakaan xaqan xëy na nasul moom yi nii moom yi nangu naa ci yéen sutum wax ne képp koo xam ne kii da ngay borom kër bu ndaw toog ci sa biir kër def bis boo xëyee jàng wakaana xaqan xale naa sul moom ci sa biir kër xamu lu lay tax a génn di wut di di dem sa lu lay tax a génn sa kër de waaye wuti njël di ca bokk fokk suñu borom dana la jox sutura ak njël loo xam ne lii looy mën a toog ci sa biir kër la ba mu ko defee ba ñu jógee ca loola wax nañu ne fa saasa fi sëriñ bi fi naar yi waxante sëriñ ba noppi rek amulu xiin amulu niir amul dara asamaan si dafa daal di wuri ci biir wuloom googee ci la daal di tàmbali di taw fa saasa taw boo xam ne bii dafa daal di do dotti ba tur bi tur yi xur yi yëpp bokk feesandoo mu mel ni taw ba nga xamee ne bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanoon nañ ko ko ca makkatal mukarrama ci bis caatum bekkoor mu daal di jàkkaarloog boromam ñaan boromam suñu borom daal di ubbi ndox mi mu daal sotti ko fa saasa noonee suñu borom nangu leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy nii mu nangu leen Sëriñ Tuubaa ko fa sar fa fa xumaat bennaar yi sax àgg ci di wax sëriñ bi naan ko dimbali lu kat waxal sa borom ne ko noonu ndox mi taxaw noo soxla woon ndox mi léegi tey bëgg nañu ni ñu soxlaa woon ndox mi ngir loru ca noonu lañ soxlaa mu dañ ngir mi ngi ñu bëgg mi ngi ñu bëgg alak ba mu ko defee xew-xew boobu yi wax nañu ne mi ngi xewee ci mujjug ramadan ci atum at mi ñuy wax jeg sasin jëkk la ko jëkkoon nag ci rabiu saani ci atum jeg sasin ba mu ko defee amoon na bis boo xam ne bii sëriñ bi génn na ci jàkka ja nga xam ne dafa julli gee ba noppi am na sax ci mag ñuy wax naan bisub alxames la guddi guddi di guddi ajjuma sëriñ bi génn jullee gee ci jàkka ji ca xumaat ba jël siwaat ci kër gi fi mu génne ci jàkka ji rek dal di mel ne dal di mel ne da na fa ko yenu ba ci kaw mu ne ko fi suuf ramaj daane ko sëriñ bi dal di mel ne ku tekk na ko sago mel ne ku toll ci melaw sukuraat ba mu ko defee sëriñ Mouhamadou Lamine Diop bokk na ci ñi nga xam ne ñi tee woon nañ ko moo ko dal di jël ak ku ñuy wax Mouhamadou Lamine Mati ah ñu dégg ak ku ñuy ak ku ñuy wax Mor Khary Niang Mor Khary Niang ak sëriñ Mouhamadou Lamine Diop ñooy ñi nga xam ne ñoo ko dal di jàkkaatoo dal koy dugal ci biir xëyma ba dugal ko ci biir néewam. mu nekk ca melo woowee rek di wëlbatiku ba àgg ci léeg-léeg mu mel ni ku so ku noppalu léeg-léeg mu bindiwaat nekk ca melo woowee tiis woowee ba ba ba ñu nodd fajar ci jàkka ji naka ñu nodd fajar ci jàkka ji sëriñ Mouhamadou Lamine Diop nee na mu dal di xiqi mel ni ko dara jot tool mu dal di jóg dal dem jàpp dal leen di jiite ci jàkka ji fajar ba suba ba noppi ba mu leen jiite ba suba ba noppi ba li siwaat nag mu daal di toog nag daal leen di laaj ne leen xanaa xaw ngeen a jaaxle de ñu ne ko waaw moom koy jaaxle na lool li nekk woon sax ëpp nag jaaxle mu ne waaw ndax xam ngeen lu ko waral loon ñu ne ko déedéet xamuñu ko mu ne ko dara mu ne mu ne dara waruñu ko lu day bi nga xamee ne maa ngi jëm si jàkk di julli si sa borom dafa won natt boo xam ne peese naa ko asamaan yi ak suuf si mu ëpp leen doole fuuf ma laaj ko foo ko jëmee mu ne ma ci sa xeet wi laa ko jëmee ci sa ci sa ci sa waa kër laa ko jëmee si ma laaj ko lu tax mu jëmee si ko ci ñoom ak li ma sonn ci moom lépp nee na mu ne ma loolu yi nga sonn ci man te sonn ko ci sa jëmm te ñoom mu wóor ma ne li nga sonn lépp seenu fay ak fayam ñoo ko moom te man dara kenn te defuluñ la dara ci liggéey bi te man kat lépp loo xam ne lii xéewal la bu may jox mbindeef fokk ma sakkal ko lay natt boobu ma leen bëgg a teg nag moom laa leen bëgg a teg ngir mu nekk seenu lay ci xéewal yooyu ñuy war a amee ci yow sëñ bi nee na ma teeseen natt bi diisaay bi peese seeni xol diisaay ba natt bi ëpp ko fukkeel ma daldi laaj saa borom ne ko man day damaa doon bëgg su fekkente ne manes na ma ko teg bàyyi leen nga teg ma ko te bàyyi leen sunu borom nee na sëriñ bi ne sunu borom ne ko man ne ma neex na ko fi nga xamee ne julli naa ba noppi di ci biir bi ma jullee ba sëlmal ah dal di génne ci jàkka ji bi ma génne jàkka ji moom mel ni dañoo peese asamaan si ak suuf si def ko benn bu yéen ne ko sama bopp bi tegg ne ko sama bopp bi diin foofee laa taqali ko sama sago yan boobu mosuma teqali ko moom ba nii nga xamee ni bii ni noonu la ñu noddee fajar noddee fajar gi moom moom moo ma taa xiqi waaye dafa wàññi yan ba daa wàññi ko waaye ba tey mi ngi teg ci sama kaw léegi foofu nu war fee seetlu ne sëriñ bi ginnaaw dafa liggéey ab liggéeyam te ba mu koy liggéey sunu yoon nekku ca sunu borom fay ko fayam te ba mu koy fay noo tax mu fay ko fay googee ndax sëriñ bi noo taxoon muy liggéey léegi lanu ci yàlla sédde la muy néew néew néew néew néew sëriñ bi xam na ne bu nu bu nu ko tegee musiba dal nu sëriñ bi bitu ko yéen waat yéen waatal nu nag nattu boobee kon kay nun li nu war def moo di nan def sëriñ bi muy sunu diine nañ def sëriñ bi muy sunu ngor def sëriñ bi muy sa diine nag mooy lu mu digle dee ko def lu mu tere dee ko bàyyi def sëriñ bi muy sa ngor mooy taqal ci waa këram nii te it ñu gën a la sa ndey gën a la sa gën a la sa bàyyi loolu mooy li nga xam lii mu ci ci lan mën a jaar képp ba mën a jéem a won sëriñ bi sunu sunu sunu sunu fay ca loolee bu ñu ko defee loolu dal di nekk nattu boo xam ne bii noo tax sunu borom teg ko ko la ci tegewaat ci ay xew-xew moo di am na ku ñuy wax Cheikh Sidi Mouhamed ibnu Afluwaat am na bis boo xam ne toog na fi sëriñ bi ca xumaak bi mu jàgg sëriñ bi jóg ñuy jëli timis sëriñ bi dikk génn ci kër gi daal di jàpp ay loxoom ci mbaar mi ci wetu jàkka ji ab diir dal di wax kii kii nodd ne ko na nga boo ja jàngal ayatul kursi yi lu mat fukki yoon te nodd ba mu ko defee sëriñ bi daal di jël salaam nag di jàpp ba muy jàpp ba eggal ñu dal di nodd ñu dal di jëri jàkka ji ba ñu ci sëlmalee nag tenku bi maanaam asamaan si daal di jekki-jekki leer nañ ñi ba mel ni bëccëg ñëpp nag daal di am xalaat ne kon jombul jant fa sowutoon ndax bisub keroog dafa niis ab jant bi feeñ feeñu dafa mel ni kii guddi dafa niisoon lool ba mu ko defee sii di Muhammadun Aflaat moom nag daal topp ci sëriñ bi mel ni ko am xalaat bu mu ko bëgg a wax sëriñ bi dal koy dal koy génne ku ne ko maa fii jaw fi ka ilal xayr sa dënn bi de li ci nekk ci xalaat du dara lu dul lu baax rek la li nga gis lu baax la ba sëriñ bi duggee ba ci biir nag maa ngi koy woolu dal ko ne xanaa leer gi nga gisoon moo tax nga yaakaar ni timis dafa gisul mu ne ko waaw man dama yaakaar ni timis dafa gisul leer gi mosuloo gis daal jant bu so ba noppi mujj wëlbati ko nag di leeraat mu ne ko waaw ndaxte yow li nga gis daf dul leeru jant ndaxte li ci dib tegtal moo di man yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi tisbaar jotee moo dikk fi fi man wax ma ne ma tisbaar jot na ma dal dem ci jàkk ja dal di julli bi takkusaan jotee jógu fi takkusaan jot moom wax ne ma jot na ma dem julli ji bi timis jotee itam daf maa wax ne ma jàngal ayatul kursi tollu ci fanweeri yoon ma dal di gën taxaw ca mbaar ma mooy diir baa fa taxawam jàng fa ayatul kursi ñaar fukki yoon dal di wax kii nodd ne ko jàngal jàngal ayatul kursi fukki yoon nekk di jàpp ba ma jàppee ba noppi mu àggal dal di nodd mu mu julli ba mu jullee ba noppi nag leer gi nga séen nag daf du leerub jant ndax leerub ahlu badrin la dafa amoon ci ahlullahi waroon gëm yu sell yi koo xam ne dafa nekkoon ci sawu jant koo xam ne dafa amoonuk lot suñu borom yebal ahlu badrin mu doon ñu doon ko xettale ji ba ñu ko xettalee ba noppi nag lañ fi jaar dina ko yëgal ak dina siyaare loola leer ga leerub ahlu badrin nga gis waaye la nga gis du leerub jant loolu daal di nekk beneen kéemtaan léegi nag kéemtaan yi sax xewul bari na lool mun nu cee jeexal benn mën nañ ciy wax di ci wax di ci wax ba il abat te du jeex waaye nag yim ci dajalee kon dajale bu wér a wér a wér léegi tey mu wàññi ko ba mu ko defee nag sëriñ bi daal nekk foofu sa saara fa fa fa xumaat te ñu ko wax sax wutul may lu toll ci diiru ñetti at wala bu la neexee ñaari at comme ni ko ni ni ko mag ñi nettalee teg na ci sax lu toll ci ñetti weer ba mu fa nekkee nag murid yi bari na fa ñu ko fa fekk lool ci diggante taalibe yi nga xam ne yii ñoo nekkoon ci biir réew mi ak ñoo xam ne dañoo amoon soxla ci moom dem di ko fa fekk mbooloom naari fekk na ko fa lool ba fekk ga bari lool ba mu ko defee nag foofii fa gànnaar nag mu dal fay nekk fa sa xumaat day am waxtu woo xam ne bii jamono yooyu Cheikh Ibrahima Fall mi ngi ndar Cheikh Ibrahima Fall nekk ndar am na nag waxtu wu nekk boobu mi ngi woon ci pexem lu lu jële sëriñ bi mu am fa nag benn tubaab boo xam ne bi day wote ak député am na ñoo xam ne ab député la doon wote am na ñoo xam ne ab maire la waxoon ne moom la moom la moom la doon wote Cheikh Ibrahima dikk fi nekk Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaan loo Cheikh Ibrahima Fall ne ko ñaan gi kay mën naa gaaw su fekkente ne kay mën nga maa fexeel ba sama sëriñ ma ñibbi si kon kay ñaan gi man danaa ànd ak yow ci politique bi ba lépp sotti waa ji naar bi tubaab bi ne ko man kay su fekkente ne man ngaa man nga maa ànd ak man kay su ma gañee fokk li nga bëgg danaa ko danaa danaa ko def Cheikh Ibrahima Fall daal di ànd ak moom ñaanal na ko daal di koy boole ku ñëw Ablaye Xaar ñu ànd ci politique ba nekk ci politique ba nekk ci politique ba ba yàlla dogal tubaab ba gañe ba tubaab ba gañe Cheikh Ibrahima Fall daal dem fi moom daal koy wax ne ko kon nag yaa waxoon ne soo gañee da nga ma indil sama sëriñ ba mu ne ko sa sëriñ ba sax mooy kan mu ne ko mooy ki ñuy wax Mouhamadou Bamba te tubaab yi génne woon ko yóbbu woon ko Mauritanie naar ba tubaab ba nag daal di jël nag ay kayitam di dugg di génn di dugg di génn ba génneel ko décret boo xam ne bi gouverneur général moo ko def ngir ñu war a dellu si waat sëriñ Tuubaa ci biir réew mi waaye nag ki sàttam ñu yóbbu ko fa ñuy wax ci yéen jolof def ko fa lu ñuy wax résidence waaye maanaam tëj ko fa ci ak kër du ko génn ba mu ko defee Cheikh Ibrahima Fall daal di jël nag kayit woowee daal di wut si xumaag nga bal ko boppam ba mu ñëwee nag baag si xumaag nag fekk fa sëriñ Tuubaa dal koy jox kayit wi dal ko wax ne ko kon kat léegi nag na nga dal di waaj ñu dal dem ndax tubaab yi may nañ la ndigal nu nga dese ci réew ma kon nag rikk Mbàkke bu fi def mukk nag di sonal taalibe yi ak it di sonalaat sa bopp nan dellu sëriñ bi ne ko ndax am sax loolu yi nga wax dëppoo ko ci sa borom ndax suñu borom jox na ma ndigalul dellu si waaye nag daf maa waxagul wan waxtu lay doon kon nag dama bëggoon nga toog fi nu bokk fi toog ak may tàggoonteeg naar yi di tàggoonteeg waa réew mi ba egg li suñu borom jox ma ndigal wax nañ ne nag Cheikh Ibrahima Fall ma ngi ci bisub gàmmo bis ba bisub gàmmo la di bisub ajjuma maanaam di fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmo ci at mu ñuy wax xëgsasin xëgsasin mooy junni ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom xam nga sëriñ mi ngi jóge woon fii ci Sénégal fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmo ci atum xëgsasin diggante xëgsasin nag ak xëgsasin ñii wax na ne juróomi at la ñii wax na ne ñeenti at képp la waaye lu ci mën a xew diir boobu la Serigne Touba nekk gànnaar ba mu ko defee mu nekk fa nag Cheikh Ibrahima Fall nekk fa ba bis ba dellu si sunu borom door a jox yonent bi ndigalul mu jox Serigne Touba ndigal ngir mu war a jóge nag gànnaar war a ñibbisiwaat ci réew mi kon Serigne bi ma nga fa jóge bisu ajjuma bisu gaaw la jóge woon fii ma nga jóge foofu bisu ajjuma su fekkente ne juróomi at képp la kon juróomi at yi manquéwul benn bis ëppul benn bis su fekkente ne ñeentaat la it ñeentaat yi ëppul benn bis manquéwul benn bis ndax gaawu fukki fan ak juróom-ñeent la jóge woon ci Daarul Manaan jëm gànnaar ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent la jóge xumaat jëm si waat biir Sénégal ci weeru gàmm ci atum xaksasin diggante xaksasin ak xaksasin ba mu ko defee nag sëriñ bi daal di wax nañu ne dafa daal tànn nag lu toll ci ñaari gaal ndax xumaat barab la boo xam ne bii sorewul ak tefes ga sorewul ak tefes ga maanaam tefesu gi ñu dex gi ñuy wax jukk mooy fël li ñuy wax li wala li ñuy wax léegi fëlaw Sénégal sorewul ak moom sëriñ bi nag daal di tànnalu ñaari gaal waxi de nañ ko tànnal juróom-ñaar fukki góor ak juróom yoo xam ne yii seen alxuraan rafet na seet loolu nag juróom-ñaar fukki góor ak juróom yoo xam ne seen alxuraan rafet na kon ña moo ko la alxuraan seen alxuraan rafetul kon nañuy toll foofu nu daal fi mën a gis ne jamonoy Serigne Touba li dajale woon ci moom li dajale woon ci moom ci mokkalkati alxuraan ak waromi xam-xam mu sa dajale ci genn kilifa ci kaw suuf ci ginnaaw genn kilifa ci kaw suuf ñu daal di jóge foofu nag mu wax ne ñi mokkal al borom alxuraan nañ toog ci nañ dugg ci gaal genn gi gaal gi jiitu ñu dal dugg ci gaal gi jiitu léegi di dem mu dal di tànnalu it mbooloo mi ci des mu xaaj leen ñaari xaaj bii xaaj nekk ci kanam gaal gi bii xaaj nekk ci gannaaw gaal gi sëriñ bi toog ci seen diggante bii xaaj bi ci kanam mu wax leen ne leen na ngeen di jàng jës bu xulóot xaaj bi ci ginnaaw mu daal di wax ne na ngeen jàng na ngeen di jàng mu waay bu naafiya sëriñ bi nag nekk ci seen diggante gaalug ñi jàngal xaam jiitu ba mu ko defee wax nañ ne sax gaal ga gaalug gi sëriñ bi nekk daa gën a gaaw ga alxuraan ja nekk ne doxoon nañ ba mu jàgg gaal gi bëgg a jiitu sëriñ bi moom moo wax kii dawal gaal gi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko toppal ca gee bi nga xamee nag wàcce nañu nag tekkil na ko mag ñi nee na leen la waral ma bañ gaal gii ma nekkoon jiitu moo di gaal gee ma jiitu saa borom laa jiital mooy alxuraan dañuy jàng gaal gii ma nekk yonent bi ali muhammad rasulullah alayhi salatu wasalaam moo ci nekk mooy gis bul xulóob bi ñuy jàng ak mooy bu naafi bi ñu jàng moom laa àndal yonent sun boo ama jàpp càmnos di ma jiite yonent bi laa àndal mooy sama wéttal ba mu ko defee nag ñuy dox ñuy dox nag ba jéggi dex ga nag ñuy dox ba jéggi dex ga ñu nga egsi nag fu ñuy wax ñu nga egsi nag dëkk bu ñuy njëkk bu ñuy wax gaaye la njëkk a wàcc ba ñëwee gaaye sëriñ bi sax na fa lu toll ci juróom ñett ci ganale goo xam ne gii waa dëkk ba ñu ngi koy ganale ngan la gu neex a neex goo xam ne gii genn ngan musu naa mel sëriñ bi sax dana di misaal ngan nga misaal ma mag ñi ne leen ngan gii de gii nga xam ne moom la ma waa gaaye gii nga gan ganale de mooy la nga xam ne moom laa doon waxante saa borom saa borom waroon ma ko te ba may jógee daru mën naan ah te mooy la ma waxoon ne bustul karima wa ataaba lil qara wa ataaba lil qira wa zaala wala azaalu ka siraaji fi lqura mu ne gane naa yàlla mi aji tedd te it neexal na ganale gi may ganale ba léegi tey neexu nganuk saa borom googu tax na fii mu toll fu ma nekkati dëkk bu ma nekkati dafay mel ni ki ay lamp ñoo fay takk wax nañ ne dëkk boobee muy gaaya ba ko sëñ bi nekkee àggoon nañ sax ci di dal ay kënd yi ci mbedd yi ngir mbooloo mu bari ak bëgg mu mu leer lépp lu ñuy teral li ñuy teral lañ ko sëriñ Tuubaa bisu keroog fa gaaya xasee googu nag nañ ko tënkee woon lay mulku samaawaati wal ard bi nga xamee ne nag sëriñ bi dal nay nekk gaaya juróom-ñetti fan yooyee mi ngi tolloog sëriñ bi daal di ñëw day jóge gaaya rek daal di ñëw fu ñuy wax dagana mu nga fa ñëw bisub gaawu bisub gaawu ma nga tolloog ñeenti fan ci weer wu ñu wax avril ci 1907 la ñëw gë dagana mi ngi tolloog fukki fan ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rabiul rabiul awal ci jëmmi at ma sëriñ bi daal nay jaar dagana ba ñu waxee nag ba ñu ko jaban jaar dagana wax nañ ne boobu fekk na ki ñuy wax tafsir Ahmadou Diop mi nga xam ne mooy bàyyi si Mouhamadou Lamine tafsir Ahmadou Diop moom fekk na ko mu génn àdduna koo xam ne dem na ci barab ba siyaare ko ah door faa jógee nag dal di wut si ndar ba mu ñëwee dagana nag fekk na fa ilimaan yi ñuy wax Maxtaar Saw Maxtaar Saw jamono yooyu mooy ilimaan yi gaaya gaaya la kon ilimaani gaaya Maxtaar Saw moom fekkoon na fa ñuy tabax jumaa joo xam ne ji jumaa joojee ak gunoom ci yooyu jamono waaye Maxtaar Saw moom wax na sëriñ bi ne ko ak mbooloo mi wax nañ sëriñ ne ko kat ginnaaw nii nga mel mënoo bëgg suñ jumaa ji nga ñëw fa julli ñu ca jiitanu ca te ñaanal ci suñu borom nangul nu ci lépp lu ñu jaamu wax nañ ne ñaar rakkaay yor yor leen fa sëriñ bi jiite du jullit farata ba leen fa jiite loolu nag ba noppi lañ fa jóge nag door dem Dagana nag dooram da jàll si nag dal di wut si nag ndar bu ñu nekkee ndar nag mu ngi fa egg si ngoonug dibéer di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmo mu ngi tolloog fukki fan ak ñeent ci weeru ci weeru awril ci weeru awril ci 1907 mu ngi ko defee nag sëriñ bi dal nay jóge nag kon Dagana ak gaaya ginnaaw bu mu jógee Mauritanie dal di wàcc gën a ñëw ndar wax nañ ne ba mu ñëwee ndar ci kër Cheikh Ibrahima Fall la dal am na it ñu ne kër gëm daloon du ci kër Cheikh Ibrahima Fall waaye ñaari xew xew lu ci mën di xew ak ganuk Serigne Touba fa ndar moom ba mu jógee gànnaar Cheikh Ibrahima Fall moo ko yore woon moo ko doon ganale wax nañ ne am na fa lu toll ci ñetti fan fa ndar ci nganaleeg Cheikh Ibrahima Fall ñetti fan yooyu nag ba mu jàllee nag la fa dal di jógee dal di war saxaar dugg saxaar nag dal di ñëw fu ñuy wax Louga ba mu ñëwee Louga ku ñuy wax alxaaji Masamba Soxna moom la dalal am na fa ab diir boo xam ne bii ca diir boobee la dal di wax nag ñi nga xam ne ñii ñooy taalibe yi mu àndaloon ne leen na ngeen ma jiitu nag dem ca yeen Jolof fa Jolof fa nga xam ne fa lañ ma dël bu ngeen fa demee ngeen sancal ma fa kër bala maa ñëw wax nañu dafa fanaan Louga yenduwaat fa dal fay jógee nag dal di wéy dal di wuti fu ñuy wax ngaañax la njëkk a jaar ba mu yegsee ngaañax ma nga dal ci bàmmeelu fa la fanaan ci ma nga fanaan ci bàmmeelu ku ñuy wax Abdal Abdal Abdalla Dieng Abdalla Dieng la tuddoon wax nañ la tax mu dal fa moo di Abdalla Dieng dafay doon ku baax koo xam ne kii ku àggoon ci boromam la te waa dëkk ba réere ko sëriñ bi nag bëgg leen caa laabire moo tax mu wàcc fa ba mu wàccee fa la fanaan feexoon nañu sax ay kéemtaan feeñ na fa te boo ko sëriñ bi jógee lañ doon tàmbalee fonk nag barabu laaj Abdalla Dieng boobee sëriñ ba dal fay xëyee nag dal di wuti fu ñuy wax Daaru Njaay ci kër ku ñuy wax sëriñ bu baax ab taalibe sëriñ Tuubaa bu baax bu ñuy wax sëriñ Daaru Xasan Njaay sëriñ Daaru Xasan Njaay nekkoon na di koo xam ne kii ku amoonu xam la ci saahir ak ci baatin nekkoon na taalibe bu jeexe jeex ci sëriñ Tuubaa itam nekkoon na di it koo xam ne kii sax sëriñ Tuubaa defoon na ko ilimaan fi Daaru Xuddoos gii bi sëriñ bi dara dem ci géej gi daana fi jiite sëriñ Daaru Xasan Njaay moomee nag moom la sëriñ bi dara loon nag fa fa ñuy wax Daaru Njaay ba mu fa demee dafa dal di yendu saan fa dal fay xëyee dem ku ñuy wax kokki ci kër ku ñuy wax Cheikh Madou Maam Diop Cheikh Madou Maam Diop kenn ku nekk ku ko xamul it war ngaa xam soxna Faati Madou Maam mu tedd mi nga xam ne mooy waajuru Cheikh Mouhamadou Bachir Cheikh soxna Cheikh Faati Madou Maam mooy mooy baayam ba mu ko defee mu dal fay fanaan yendu fa dal fay jóge nag dal di dem fu ñuy wax kër kër Madou Amina da fu ñuy wax Doriga ci kër Madou Samba Diop sëriñ Cheikh Madou Samba Diop Cheikh Madou Samba Diop moom itam ku ko xamul war ngaa wax war ngaa xam ku ñuy wax soxna Mbéye ak soxna Tuuti ñooñu mooy seen waajur ñooy kii mooy waajuru sëriñ Mamadou Moustapha kii mooy waajuru soxna Muslimatu Mbacké kon su waajur soxna soxna Muslimatu Mbacké ak waajur soxna ak waajur sëriñ Mamadou Moustapha sëriñ Cheikh Amadou Samba Diop moom mi mooy seen waajur ca Doriga la dëkk sëriñ bi it dal fay fanaan yenduwaat fa dal fay jóge dem fu ñuy wax kër Basin fekk fa ku ñuy wax Mouhamadou Amina Xuma Mouhamadou Amina Xuma Diop Mouhamadou Amina Xuma Diop moom mi nag moom mooy waajuru soxna Aminta Jobbe ak ki nga xam ne kii soxna Aminta Jobbe it ak waajuru sëñ Mahmoudane ñoo ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ak baay soxna Aminata Jobbe ak waajur sëñ Mahmoudane Jobbe ñoo bokk lépp mu dal fay toogub diir moom itam fanaan fa yéen dafa dal fay jóge dal di door a àgg nag fu ñuy wax ci yéen jolof ma nga fa àgg nag ci bisub dibéer di juróom benni fan ci weeru rabiul saani maanaam rakk ji gàmmu caat mu ñuy wax xëg sasin léegi mi ngi tolloog ñaar fukki fan ci weer wu ñuy wax ci weer wu ñuy wax awril ñaar fukki fan ci weeru awril ci 19 1907 la sëriñ bi àgg ci yéen jolof fekk na kër ga noppi mu daal di tudde kër ga nag tudde ko daru rahman sëriñ bi daal di nekk ci kër ga lu toll ci ay at wax nañ ne mat na ñaari at ba ñett ba at mi ñuy wax sëg sëtin sëg sëtin mooy junni ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar mu dal fay sañ ci geneen kër ca wet ga goo xam ne gi diggante ñaari kër yi sorewuñu wax nañ ne ñi ne mat na kilomètre ñi ne manqué na kilomètre kër googee mu dal koy tudd Daaru Xuddoos ba mu ko tuddee Daaru Xuddoos nag ah lu tax mu sos kër gi weesu wut mbooloo mi nga xam ne ni moom ñoo ko fekkoon mbooloo mi dafa bari ci kër gi ñuy wax Daaru Rahmaan ba sëriñ bi gétug jaamu yàlla ci la ko war defee amatu ko mu daal di suñu borom daal koy digal nag mu sañ ci geneen kër nag tuddee ko daal xuddoos daal fay dem nag nangoo naa ci mag mu wax ne kër googee sëriñ bi sañ tudde woon daal xuddoos sañ ko muy sañ bu yees ba moom daana fa nekk waaye ñun ñëw ci mag ñi ñoo faraa dem am na ci mag ñu faraa dem xëy ñu daana jógee ci këram ci jolof di fekki sëriñ bi fay fekkee yéen jolof ah daana siyaar yi sëriñ bi daana wal ay sànqal daana togg ay cere di ko sub ci ay gëléem daana sub ay dugub ak lu mu daan jëfandikoo ndax moom ci moom booba ab commerce la ab béykat la woon boo xam ne bi daf daa yaxantu léegi nag moom moom yi nee na wàññi nañ ko ba tàyyi delloo nañ ko ginnaaw it ba tàyyi waaye tuxut saa yu ko delloo gannaaw bu mu dil si rek su dil see waajaat fas yéene delluwaat bokkoon na ci coxotug buuna ak coxotug maxeet mi nga xam ne bii moo doon jaraaf yi ma xeet moo doon jaraaf yi buuna njaay ci yooyu jamono daana dóor daana yeew daana tooxal mbooloo mi waaye nangoon naa ci sëriñ Mawlaay Buso ca Gede mu wax ne am na yaari bayit yoo xam ne ab naar moo ko defoon ci ngir wane coxatug ma xeet wax na nag moom ñaari bayit yooyu wenn wala mokkal wenn wala ma wax waaye waxut waxut wa ca def wenn wa mu wax nag moo di yaa rabbana yaa sal bilaadi yaa mu xeet xul baynana wa bayna abdika ma xeet yow suñu borom yow mi nga xam ne yaa moom adduna ak réew yi ci biiram te yaa ko fekk ci sa xam ak sa kattan waaye waaye noo ngi lay ñaan nga dox suñu diggante sa jàmm bi ñuy wax ma xeet la jël nañu kon yaakaar naa naar ba sonnoon na boo ko defee nag sëriñ bi kon daal nay jóge foofee nag daal di ñëw nag njaareem ci atum la sësi mooy fi ñu tolloo fi ñu wax naan raamoo masiri ila njurbe la daal la sësi law aayanoo si ramaati sayri maa raamoo asayru mawtunu ala man naasoo wa atal wa innahu liya ibda ibqaaun wa ikraamu tubaab yi ñu ngi bëgg ma dem njaareem ci atum la sësi waaye dañoo xamul li nekk ci dem gi waaye suñ ko xamoon du duñu duñu ko sàkku ndax xamuñu ne man dem gi ci sama dem njaareem mooy seenug toroxte mooy seenug dee ñoom di seen dellu gannaaw ba faw man nag mooy sama dund mooy sama yëkkatiku mooy jot ci li nga xam ne ni moom laa doon liggéeyal saa borom kon suñu xamoon loolu duñ duñ ko nangu moom ko defee nag dafa mel ni ci da ngay noppi ci waxtaanu gànnaar ndax toppal nan la ko fa mu jógee ba fii mu mujj si ci yowaat ci yéen jorof war a jël soir njëriñ asayru mawtun ala man naasoo wa asal wa innahu liya ibda ibqaaun wa ikraamu tubaab yi ñu ngi bëgg ma dem njaareem seetum lësës yi waaye dañoo xamul li nekk ci dem gi waaye suñ ko xamoon du duñu duñu ko sàkku ndax xamuñu ne man dem gi ci sama dem njaareem mooy seenug toroxte mooy seenug dee ñoom di seen dellu gannaaw ba faw man nag mooy sama dund mooy sama yëkkatiku mooy jot ci li nga xam ne ni mu laa doon liggéeyal saa borom kon suñ xamoon loolu duñ duñ ko nangu moom ko defee nag dafa mel ni ci da ngay noppi ci waxtaanu gànnaar ndax toppal nan la ko ba mu jógee ba fii mu mujj si ci yowaat ci yéen jolof war a jëm si waat njaareem loolu weneen waxtaane ci topp woo xam ne bi dafa war a sosu muy nekk sëriñ bi njaareem muy fukkaati gëm yi mu fa nekk su nu ko sundee daan la wax sabab yi ko yi ko yi ko war a indi njaareem ak ñu fam fa jaar ak ak lam fa joteel ñëpp léegi nag doo bëgg di si waat ci ba la waxee sëriñ bi jaar na gànnaar nag ba jàll nag dina bëgg dina la bëgg a wax nag xalaati naar yi ca ca gànnaar ginnaaw bu fa sëriñ bi jógee nan lañ gisee sëriñ bi nag loola mooy li nga xam ne nii moo def ci waxtaan wi am na ku ñuy wax Cheikh Sidé Baba te mooy naar bi nga xam ne moom la tubaab yi juboo noonu ngir mu war a yóbbu sëriñ bi gànnaar ngir ñu wax ne boo demee kon dana nekk sa taalibe ay mbooloo dana nekk sa taalibe Cheikh Sidé moomee nag jëflante na ak sëriñ bi ànd ak moom ba mu jàgg teqalikoo nañu dal lay gis lor dal lay tiit bëgg de siwaat nag ci sëriñ bi de siwaat nag sëriñ bi ànd naa ak moom bi sëriñ bi teqalikoo ak moom nag dal lay wax nag xaside gii ma lay bëgg a wax ngir seeral ko sëriñ bi xamal ko fan yi mu fa nekkoon ni mel man ko naan ayyaamukum indana saffun bila kadarin takaadu tuxsabu lam tuxsab min al-umri ashal wisaali ila al-ahbaabi ma fadirat bihi yadaahu ala ya'sin min al-zafari zurtum fama kaana illa qawlu qaa'ilihim min gayri shakkin wala raybin min al-zafari kaanat muhaadasatu rukbaani tuxbiruna an jaafar ibni fallahin adyab al-xabari haata wallah kaanat muhaadasatu rukbaani tuxbiruna an jaafar ibni fallahin adyab al-xabari hatta iltaqayna fala wallahi ma sami'at ubni bi ahsana mimma qad raa basari mu ne ko fan yi nga fi nekkoon day fan yu neex a neex a neex la yoo xam ne amuñu ci lenn lu naqari ci biir fan yooyu su ma ko dee seet sax ci biir sunu dund day mel ni amuñu yenn dund amuñu yenn musuma am yenn bis yoo xam ne yu neexee noonu ci biir dund dafa mel ni comme su fekkee yaa ngi bëgg a dem kon luñ sunu bopp daanaka dafa mel ni ki danoo war a dee mu def ci tegal ne ko li gën a neex nag ci gis sab xarit mooy nga wër wër wër wër su xarit nag amoon xarit di ko wër di ko wër di ko wër ba mu jàgg léegi de nga naagu ci ne dootoo ko gis ba mu jàgg nag nga jekki-jekki nag léegi ti cëtti moom ginnaaw boo naago ne doo ko gis nga gis ko foofu mi ngi ko fii léebu naan ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ki nga xam ne kii mooy sunu yaakaar te sunu yaakaar yi ëllëg yonent bi boobu nag noo ngi koy noo noo ngi ko xamoon nag di ko topp su naam ngir dégg gun koy dégg ak yaakaar gun koy yaakaar jàppoon nan duñu mën a duñu mën a jàkkaarloog jëmm ja mukk duñu mën a jàkkaarloog lenn masa mën a misaal ci jëmm ja waaye nag bi nga xamee nag yàlla dogal na nga ñëw nag bi naago la dund gis lu mel ni moom yàlla dogal nga dikk fi duñ la seetee natt la ci moom dafa mel ni ki daal yow nii yaay moom moom mooy mooy yow man ki woo ko dara moom itam ëpp la dara mu tekki ne ko zurtum fa maa kaana illaa qawlu qaailihim min gayri shakkin wala raybin min safari ñëw nga fi waaye bi mu waree gàddi gàddug naar yi laaj leen ay xalaat ci yow amul kenn koo xam ne kii am na sikki sàkk ci ne yow mii yaay jëm yonent bi alayhi salatu wasalaam kenn sikku ko sikku ko sàkk ñëpp jàpp nañu ne tuuf nañu ci gis yonent bi alayhi salatu wasalaam mu tekkee ne Jaafar ibn Fallah am na fi ay gawar yi fi daa ñëw dina ko nettali naa nii la mel naa la mel daa rafet daa baax daa mel nii daa mel naa waaye dina bi la gisee gis nañu lu ëpp lam daa dégg bi nu la gisee gis nañu lu ëpp lam daa dégg mu del soit ci ba ñuy dégg yonent bi booba xamuñu woon lu mel léegi nag bi nu la gisee nag sa zahir ak sa batin dara wuti wuti ci wuti wuti ci yonent bi alayhi salaam bi nu la gisee nag ah sunu nopp la mu dégg li suñu bët gis moo ko gën moo ko gën fuuf loolu moom la Cheikh Sidiye wax yonent bi wax Serigne Touba ci bi ñu teqali ko woon ba mu ko defee itam am na genn xasida goo xam ne gii Cheikh Sidiye moo ko taalib wax na ca di ci wax ak Serigne bi di ko ca nettali misaal bu mu koy misaal ci diggam ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma nga naan aseexu ahmadu ni'matun awlaaha haada alxalaayiqa kullaha mawlaaha فالحمد لله الذي نعماؤه لا يستطيع عباده إحصاها تلقاه إن رفعت لمجد راية بيمينه متهللا يلقاها ما ngay wax nag naan ko Serigne Touba day xéewal la goo xam ne gii sunu borom moo ko wàcce ngir yërëme ko jaam ñi noo ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne ay xéewalam lu nu ko seet seet seet seet duñu mën a fexe ba lim ko mooy Serigne Touba mi nu indil lu mënuloo xam lenn loo xam ne defal na ko suñu borom ba tax mu war noo jaral mu war ko mu war noo jaral mu war noo mu war koo jaral mu jox na ko mel Sëñ Tuba Sëñ Tuba moomu nag su fekkente ne fekk nga gaay yu demu kenn ku nekk di yëkkati raayam ab drapeau naa maa man li ci saa borom maa xam li ci saa borom ah xanaa kon ñooñu di damu la ñuy damoo lépp dañ koy fekk ci benn loxob Sëriñ Tuba te la ca ëpp tegg na ba ci wax naan tasxal xibaadu ila maariba doonahoo naxwahu min amri duniyaahu aw min amri uxraha mu ne jaam ñëpp ñu ngi dox jëm ci sàkku ci ay yitte ci ak wàllam kenn ku nekk yaa ngi jóg wuti Serigne Touba ngir bëgg am ay faj sa yitte faj ci moom. waaye nag ñay dem ñëpp ñii dañu yóbbu ak ittee aduna ñu yóbbu ittee alaxira kenn ku ci nekk bala nga faa jóge sa yitte dana fa jóg. Cheikh Sidiye nag am na ay xasida yu bari yu mu def ci Serigne bi yoo xam ne yii daanaka. xamee su ko mën a takk te xasida gi am na ku ci nekk rek moo gën a rafet morom ma xanaa ñu jàll rek ci keneen ki nga xam ne kii mooy Cheikh Sadou Abihi wali yu mag mi nga xam ne am na sax ñuy wax ne sëriñ bi daana wax ne moom ci boppam borom jamono la woon moom Cheikh Sadou Abihi yaakaar naa ne ku dib naar da war a umpale kan mooy Cheikh Sadou Abihi Cheikh Sadou Abihi moomu nag moo def xasida gii ma tiim di ko def def ko muy seereem ci Serigne Touba di xamle ci biir xasida gi ne bi Serigne bi demee ci géej gi bi muy dem booba dafa yor leeraayu weer maanaam bi muy dem darajey gaay yu baax yi ko jiitu woon moom la yóbbaale ci géej gi waaye nag ba muy dem ci géej gi nag dafa feeñaat ci sawu daal di indaale nag leeraayu jant loolu li muy tekki mooy bi mu dikkee dafa ëpp doole mboolem ku fi mas a jaar ba jàll moo tax ñu ñu dégg ko mu naan maadinuhu ajlathu minha nasara fa asbaxa fi tilka albuxuuri nudaara wa min sadafi albaxri almuxiiti bada fa min talaluihi fihi alcuyuunu xiyaara فيا عجبا لكيم يمسحان غدا بها نبار الورى ياقوتة ياقوتة لا تبارى وبدرا وبدر منير غاب في الغرب ثم لاح من الغرب شمسا رفعة وانتشارا ويا عجبا باب المتاب مفتح لكل مريد رام منه جوارا هنيئا لذي الدين الغريب الذي غدا يتيه سرورا منكم وافتخارا لولو شيخ سيدي موكو واخ ماغي داي واخ نان مبل ميغا خامني موم لا سيرن توبا امي tubaab yi dañ koo jël ba ñu ko jëlee nag toj xor wa ko ëmboon yóbbu ko dugal ko ci biir sawara lakk ko ba mu sa toor sa jeex takk bañ ko delloosee mu daldi nekk wurus wu gën a rafet wa mu nekkoon muy safaanu li tubaab yi bëggoon tubaab yi ñoom dañoo bëggoon bu ñu ko yóbboo suñu ko del suñ ñu bañ koo delloosi wala bu ñu ko delloosee bokk mu yàqu waaye nag Cheikh Siriem Cheikh Sadou Abihim mii nee na ba mu demee ci géej gi nag ba dellusi nag dafa nekk nag wurus woo xam ne wii amul lenn wurus wu ñu ko mën a dendalee si maanaam nit ku baax la tey koo xam ne kii amul kenn ku baax ko fi ma sa jaar kuñ ko mën a dëndalee moo tax mu naan wa min sadati albahri almuxiiti muxiiti badaa fa min talaluhi fihi alyuyunu xuyaara daanaka sax léegi wurus la waxam ne yu bët mënatu caa mënatu caa jàkk mënatu caa xool ngir leeraay ba kon nag fa ajuban fa yaa ajuban wala fa ajuban loo ci wax baax na li kii mi yem si xaanin xadaa biha yéem naa nag man cosaan li nga xam ne ca la sunu borom sàkke Sëriñ Tuubaa xam naa cosaan lam ko sàkkite bokkut ak lam sàkke nit ñi ndax su fekkoonte ne bokk nañ cosaan lu ñu leen sàkke nit ñu war a ñu war a mën a gis bokk nit koo xam ne kii mën na koo mën na koo màndaxe ak Sëriñ Tuubaa kon daal Sëriñ Tuubaa daal wurus la woo xam ne wi tey amul kenn koo xam ne kii sab taar mën na ko màndaxe ak taaru Sëriñ Tuubaa mu ne nag bi muy dem wa badrin muniirin mu ne bi Sëriñ Tuubaa dem ci géej gi booba weer la wu leer waaye nag dafa jékki-jékki rek suux ci sawu lu toogub diir dégguñu ci moom dara xamuñu ci moom dara ba am ci lu benn bis rek mu jékki-jékki feeñaat ci sawu nag waaye ba waaye nag ba mu dikkaat nag dunul weer jant la jant la boo xam ne bii mu ngi tiim ñëpp ni jantum jolloor di tiime ñëpp ni leeru jantum jolloor di wisaaroo ci bépp goxit noonu la leeru Sëriñ Tuubaa àggee ci bépp gox ci képp koo xam ne ci am nga leer mu tekkee it ne léegi day wayaa ajaban baabul mataa bi mu fattaxun man day kéem naa yi am naa kéemtaan lool ci bi ma jàkkaarloo nag ak Sëriñ Tuubaa masalan bi mu dikkee tama seen ko nam doon demee ak seen ko ni mu dikkee suñu borom xamal na ma ne buntu jéggal suñu borom ubbil na ko képp koo xam ne kii ab taalibeem nga wala ngay képp ku di jullit koo xam ne kii bëgg ngaa sakku ci moom jàmm sa diggante sa borom mu ne képp koo xam ne kii ëmbal nga Sëriñ Tuubaa jàmm rek sa diggante sa borom rek mu ne kookee suñu borom jéggal na la lépp loo xam ne lii mësoon nga ko sëq sa diggante sa borom mu tekki ne hani an li sa diinil xarib alladi gada yatiihu sururan min ko wastixaara mooy nag maa ngi ndokkeel nag diine ji nga xam ne diine dafa màggatoon torox ci mu ranke màggat kenn mënu koo jëfandikoo ngir lambagum lamboon ci yooyu jamono waaye nag yow nga dem ba dellu si nag bi nga dellu si nag léegi tey nga yeesalaat ko taxawal ko dëgëral ko dimbali ko ba mu dëgër këng ba léegi te di diine ngi bakku ci digg géew bi ba benn amul benn diine boo xam ne bi mën naa jàkkaarloo ci ak diine lislaam yooyu nag la Cheikh Saadu Abihi topp yooyu it la wax teg na ci itam am na it keneen ku ñuy wax Cheikh Mouhamadul Lamine bun Cheikhil Alawi moom it mi ngi tagg sëriñ bi di wax naa ilaykum wa illaa fa najaa'ibu fi kaab xadiima alladi xallaa bi xullatihi kaab alawtal walaa kaaban wa xajjuuka kaabatan wa min kulli waadin yansiluuna wa min xadab wa lilaj wa lilxajji miiqaatun wa xajjuka daa'iman daa'imun wa laysa ilaa shahray jumaada walaa rajab qatactu ilayka albaxra walbaxru anta hu wa qaaticu baxrin nahwa baxrin min alcajab wa jubtu min almawmaati maatida qatcuhu wa duunaka mawmaatu nataiji lam tujab ma nga ko naan man day ilayka maa ngi jëm ci yow wa illaa su fekkente ne takk naa nag sama naaga jëm ci feneen fudul fuy fudul ci yow day kon dafa najaay bu naaga yi ñu takk yépp ci taab mi ngi ci coono maanaam képp koo xam ne kii war nga ab warukaay di jëm ci kenn ku dul Sëriñ Tuubaa mu ne sooyal nga sa warukaay boobee ne la ngay wuti ci kookee doo ko am mu ne ko nag yow mi nga xam ne yow laa jëm si nag yaay xadimal la fii xallaa bi xullatihi kaab yow yaay ki nga xam ne ki yaay liggéeyal yonent bi alayhi salatu wasalaam moom mi nga xam ne ca takkaayul xam-xamam loolee ca la kaabu nu xas kaabu waykatu yonent bi alayhi salatu wasalaam ca la takkee woon mu di ko jox misaal ne ko way yi nga xam ne yi yaa ngi ci teg yonent bi alayhi salatu wasalaam sa leerug wax ji dafa mel ni ki yaa tëbboon kaabu xam-xam ba mu yore woon bay mën a way yonent bi dafa mel ni ki yaa ko tëbboon mu teg ko ci ne ko alawtal waraa kaaban wa xajjuuka kaabatan tiim nga bindeef yépp ni kaabatu baytilaahil xaraam tiimee mboolem bépp néeg bu ñu mës a jaamoo yàlla ni kaabatu baytilaahil xaraam tiimee néeg yépp noonu nga tiime bindeef yépp yow sa bopp tey moo taxit nag loolu moo waral na ñuy ajee ca baytilaahil xaraam noonu la ñuy ajee di la wut si nit ñaa ngi dikk di xaj si fi yow loolu mooy wa xajjuuka kaabatan te it nit ñi dikk fi yow jógewuñ ci genn wet jógewuñ ci benn benn mbedd képp waaye kay wa min kulli waadin yansiluuna wa min xarab xur wu nekk ak tund wu nekk ak mbedd mu nekk ñu nga cay jaar di jëm si fi yow dafay mel ni ki ñëm si fi yow wet gu nekk dafa mel ni adduna bépp ubbi ko wut si la te kat yow sa aj googu bokkul ak aju makka ndax walil xajji miqaatun wa xajjuka daa'imun wa laysa ila shahray jumaada wala rajab kuy aj makka day yaa ngi fi war a dem ci diggu tabaski mbaa nga dem fa ci aw tabaski waaye su fekkente ne diggu tabaski jàll na tabaski jàll na yaakaar naa ne kuy bëgg ajati bala nga ajati da ngay nekk déwén waaye nag yow mbooloo mi jëm si gi jëm si yow amul diggu tabaski amul weeru koor amul korite amul màggal amul waxtu wu nekk lañuy wut lañ lay wut si kon nit dama di ko jox misaal ne ko nit ñi jëm si fi yow moo ëpp foofu ñuy wut ñooy ñooy wuti màkk moo tax mu ne ko walay sa ilaa saharay jumaada wala rajab yemul rek ci sahru jumaada lawal wala wala sahru rajab rek nit ñi wut si ci yow déedéet ñoom weer wu nekk lañ la wuti moo tax nag mu ne ko ginnaaw nit ñëpp ngi ñëw nag man kat qataatu ilayka al bahra wal bahru antahu wa qaati'u bahrin nahwa bahrin min al ajab maa ngi lay xamal ne kat war naa la ci sa warukaay maa ngi war ci kaw géej gi nag di dagg géej gi jëm si ci yow maanaam maa ngi war sa warukaay di jaar ci kaw géej gi nag géej gi wut si la waaye nag géej gi nga xam ne gi moom laay jaar ci moom nag yaay moom loolu nag dafay aw léebu waxan wi misaal la moo xam ne ni dafa bëgg nit ñi xam ne muhammad alayhi salatu wasalaam dafa waxoon ne ana baharul ilmi bu la neexee wala ana madinatul ilmi wa aliyun baabuhu daaw misaaloon boppam xam-xamam ba ci géej yaatuwaayu géej ci la misaaloon boppam mu ne nag waykat bii nag wax Sëriñ Tuubaa ne ko géeju démb googee fi nekkoon di muhammad alayhi salatu wasalaam xamaa xam naa bu wér na yow mii yaay muhammad yaay jëmmi géej gi kon nag maa ngi war ci géej gi jëm ci kaw géej gi mu ne nag war ci géej nag jëm ci géej nag mu ne loolu kéemtaan la mu tekkee ne ko wajubtu min al mawmaati maatida qat'uhu wa dunaka mawmaatu nataiji lam tujab mu ne nag maa ngi war ci géej gi nag war ci jéeri ji di dagg àll yi di jaar ci yoon yu naqari yee jaar yi nga xam ne gaa yu baax yi daanañ ci jaar di wuti lu baax mu ne nag yoon yooyee nag gaa yu baax yi daa jaar di wuti lu baax nag ma maa ngi lay xamal ne maa ngi say jaaraat wut si la te it lu baax laa bëgg moo ma tax a jóg mu ne nag wa duunaka mawmaatu nataiji lam tujab mu ne képp koo xam ne kii nag yaa ngi war ab warukaay di jaar ci àll di wuti lu baax te jamono teg Sëriñ Tuubaa te it wuti woo ko ci moom mu ne loolee ngay wuti fa nga koy wuti doo ko fa fekk lépp lu waay soxla mi ngi fi kanam Sëriñ Tuubaa bis ni ki tey loolu moom la Mouhamadou Lamine bun Cheikh il Alawi bun Cheikh il Maalum wax ci Sëriñ Tuubaa am na it beneen naar bu ñuy wax Mouhamadou Abdullahi bun Fafa am na ci biir xasida goo xam ne gi dama ci aj joxe rek ay bayit indi ko ngir wax ko moom itam ngir mu leeral lenn ci wàllu Sëriñ Tuubaa mu ne huwa al yumnu fi yunaaka wal yusru fi l yusra wa baaqi l masaaya bayna a'daa'ika al uxra mu ne lu baax lépp mi ngi ci sa loxom day joor te it liy jàppandal lu jafe lépp mu ngi ci sa loxob càmmoñ li nga xam ne li nit di nit bëgg na ko ci diggante loolu ci lu koy diggante lu koy musal ak lu koy may la mu bëgg lépp a gis nag suñu borom teqale na ko ci sa diggante ci sa gën di cër yi ci def lu baax daal bu ko waay bëggee sama day joor ko koy jox su fekkente ne am waaye am na la ko jafe-jafe lu munta am itam mu ne sab càmmoñ ko cee musal ku bëgg a mucc ci lu jafe mucc sab càmmoñ ko cee musal mu ne nag leneen li waay di bëgg nag te di ko sakku ci nit wala mu di ko sakku ci boromam loolu suñu borom def na ko ci ficcir yi def na ki say tànk ak say bopp ak say ci des loolu li ba leen lu baax lépp suñu borom séddale na la ko mu ne wa man naasu illa bayna zayn ibtiqaa'uhum fa min mu fa man yabtaqi yumnan wa man yabtaqi yusra mu ne nit ñi nag ñaari yëf yi rek ci lañ nekk benn muy sakku si barke wala muy sakku si lu lu jàppandi maanaam ak may teew nag képp koo xam ne kii ñëw na fi yow rek yaay yooyu lu mu ci sakku fa saasa na mu ko sakku la ko daal di amee mu ne ko it waa ne wa inni la raajin min yadayka nadaahuma wa busra li man yarju an nada minhuma busra mu ne man nag tey dikk naa li ma tax a dikk nag mooy damaa yaakaar ñaar yépp ci say loxo yaakaar naa ci yow barke moom lay sakku si yaakaar naa ci yow it ak may moom it moo ma tax a jóg kon ñaar yépp laa bëgg te xam naa ne ñaar yépp ko soxla ci yow dana ko am képp koo xam ne ki soxla ci yow ci yow ci yow sa tabax sa ñaari loxo fokk da nga ko jox ci ni nga xam ne noonu la ko bëggee woon ci biir loolu nag dafay daal di mel ni ki liñ leen waxoon ci ak gàttal ci wàllu yoonu gànnaar dafay bëgg a mel ni luy bëgg a jeexi foofu ki ko wax nag moo ko gën a réere ci ñi koy déglu képp koo xam ne ki dégg nga ko te am ci loo xam ne li ci bokk la te muy lu la wér noo ngi lay ñaan ci barke Serigne Touba nga dimbali nu benn nga xam ma man Mouhamadou Khayri yëpp ma ko way laa nga xam Kaba Fall mii indil ko ko soo ko joxee danaa ci jot ngir noonu kat waxuñu ko ngir ne noonu dañ koo xam déedéet dañ koo wax ngir ne dañ koy gëstu loolu rek moom mooy li nga xam ne nii moom lañ ci bëggoon a wax ci wàllug yoonu gànnaar.
ah jërëjëf sëriñ Modou Khayri yaakaar naa ni yoon na gànnaar bi daal wax ji ñun taalibe yi daal am na lu bare bare loo xam ne nii am nañu ko ci yaakaar naa ni wax ji daal jotal na lu bare bare bare bare léegi nag ginnaaw nga xam ne waxtaan wi moom du doy te lépp ci sëriñ Touba la jëm dafa am daal lu nu bëggoon tuuti kun ci dollil loo xam ne lii dana koy laaj laaj yi nag du xam-xam waaye dañuy nit daal lu mu xamul lu nekk sañ na ko laaj ndax ñun daal dañoo dégg murit yi naan képp koo xam ne kii nag jëblu nga wéeru ci sëriñ Touba rek sëriñ Touba dana la yóbbu aljana ñu bëgg foofu it nga defal na fi ay leeral bisimilah sëriñ Xëy.
jërëjëf sëriñ Kabir Fall loolu sëriñ Touba wax te mu ko bind sax laa lay njëkk a wax te it muy nekk mbind moo xam ne nii ñëpp miin nañ ko foofu muy wax naan kullu muridin bi yeloobu yasaadu wa innahu min al aza mubaadu bépp taalib boo xam ne bi yaa ngi wéeru ci man da nga texe te doo am coonab tey doo ci am coonab ëllëg ci biir xasida gi it waxaat na ci ne kullu man bi yataallaqa najaa min kadari dunia wa fi yawmin najaa képp koo xam ne ki aju nga ci man mucc nga ci nëx nëxi adduna ak nëx nëxi alaxira loola Serigne Touba mi ko wax wax na dëgg bu wér na mu waxee dëgg sax nun duñ ko xamagul léegi ndare lu dina dem ci yowmul qiyaamati yi ja nga xam ne moo taxoon mu di ko wax waaye nag am na ñoo xam ne ñii dañu koy gis di ko jëfandikoo nu mu leen soobee te du bokk ak ni nga xam ne nii noonu lañu ko war a jëfandikoo ndax Serigne Touba moom loolu mu wax dëgg la waaye nag man damay jóg nag dégg loolu mbaa ma dégg sax ñu di ko waxtaanee ci mbedd yi tax ma dal dem dal di daw dal di fekk ab sëriñum murit ma dal di jébbalu ci moom dal dem nag toog wax ne man maa moom sama bopp nag léegi tey lu ma neex def lu ma naqari bàyyi ndax Serigne Touba mi wax lii mooy ki nga xam ne kii moo ma garanti loolu bari na ci murid yu koy wax loolu Serigne Touba wax dëgg la waaye nag dafa damaa yaakaar ne bu Serigne Touba waxee ne ko ay ci man mucc nga tey mucc nga ëllëg yaakaar naa ne la la war a njëkk a war mooy yow nga laaj Serigne Touba nag nan la bëgg ku na ajo ci moom defe naa loola moo gën a wér defe naa waxut loolu rek dal dem la mu ca teg am na feneen ci yeneen i barab yu bari yoo xam ne yii ba ma la cee njëkk a wax tamit tamit boo xam ne bii bu leer bu ñëpp di mën a gaaw a gis la moo di maj moo bi nga xam ne sëriñ Abdul Ahad mool na ko te waxi sëriñ Touba rek nekk ca ca bopp maj moo ba képp soo fa demee da nga ca fekk mu naan yaa ma'shara atbaa'i istami'u minni waqbalu hada la tufariqu shari'at al mutahhara ma ma tayassara lakum min al haqiqati al munawwara ba wax ja jeex ma nga cay wax naan yéen mbooloo mi topp ci man kaay leen ma dénk leen maa ngi leen di dénk bu leen teqalikoo mukk ak li ñuy wax sariatul mutahara te sariatul mutahara nag mooy jëfandikoo li nga xam ne lii moom la lislaam digle ca nam ko diglee bàyyi la mu tere ca nam ko teree ci gàttal loolu mooy sariatul mutahara soo ko defee nag ba noppi nag nga xam ne kon yaa ngi def kon ci diggante julli yi ak koor gi ak azaka ji ak aj makka ca nam ko mëne ginnaaw boo xam ne bii ne gëm nga yàlla ba noppi ci ni nga xam noonu la ko yonent bi indee ci ne bu ne yéen islaamu ala xamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaati wa itaai zakati wa sawmi ramadana wa hajjil bayti liman istataa ilayhi sabilan loola nekk lu wér loo xam ne ni noonee ko yonent bi indee woon noonu la ko Sëriñ Tuubaa indee waate yee salaat ko ba mu leer nañ bañ kenn ku ne mën caa jàpp léegi nag ci biir loolu soo defee loolu ba noppi nag Sëriñ Tuubaa nag ne la kon nag na nga ca teg li loo mën ci xaqiqa nga teg ko ca xaqiqa nag pastefu biir la ci diggante nit ki ak boroomam su fekkente ne yaa ngi jaamu yàlla ci jaamu yàlla ak saahir di jëf saahir si te amuloo pastef booba sax sa jaamu yàlla googee suñu borom daf ko dul nangu kon foofu Sëriñ Tuubaa digle na fi lépp loo xam ne lii yonent bi daana ko def am na it ci beneen barab boo xam ne bi ma nga fay wax naan isabtadal muridu bi tawhidi wal fiqhi wa tasawufi al majidi muntahijan madhaba ahli sunna maa al jamaati wa tilka al junna mu ne su fekkente ne ab taalib bi jël na tànkum dañoom teg ko ci tawxiid gëm yàlla ca nam ko war a gëmee jël tànkum càmmooñam teg ko ci sunu yonent bi alayhi salaatu salaam di jaamu yàlla ca nam ko war a jaamoo ba noppi nag wut sëriñ boo xam ne bii moo ko gën a jege yàlla gën koo gën koo jege boromam gën koo xam boromam muy jëfandikoo ay ndigalam di bàyyi ay teram jël mbiram ak ci moom mu ne nag sëriñ boobee di la ñedd ci yoonu xam-xam di la jaarati ci siraatal mustaqim ku def loolu da nga mucc tey da nga mucc ëllëg yaakaar naa ne kon sëriñ Tuubaa leeral na ñi war a ajoo ci moom ci googu ci yow anam am na it seen fu mu waxe ne sifaatu sadiqil muridi bi iqtisaar arbaatun nazamtuha xawfa ixtiraar asidqu fi mahabati cheikhi abad ثم امتثال امره حيث ورد وترك الاعتراض مطلقا ولو بباطل عليه فيما قد رووا ومعه طلب الاختيار لحسن دمه بلا انكار فكل من جمع هذه الصفات من المريد سيدرك الثقات فوفي سرين تبارك الله خاتنا ملاي مريد صادق بيغا خامن نانغول ناكو اك طالبين دي ينتي من الله يو خامن يي ماغي كوي واخ في ngir bëgguma ko waru ci man waru ci serigne touba nak moy japp ne ci talibi ñi nga bokk te fekk na bokk goca ndax te kat ma ngi leen di xamal ne li misalum loolu moo di nit ki day jébbulu rek dal dem toog lu ko neex def lu ko naqari bàyyi jàpp ne ab taalibe la bu sëriñ tubaa nangoo lu taalibeem te fekk na loola mooy dem nag ca cinéma ba jënd ca biir def ko ci sa boos dem sa kër toog yaakaar naa ne bu film bay daw doo ko fekke bu film bay daw boo ko fekkiwul yaakaar naa ne doo bokkoo ci ceetaan ma kon nag képp koo xam ne ki jébbulu nga ci sëriñ tubaa ak koo mën a jébbulu ci ko aju ci sëriñ tubaa waaye la ñu digle defoo ko la ñu tere bàyyiwoo ko loola mooy tekki ne ba ñuy seetaan film ba yow bokkoo ca kon nañuy jëfandikoo ndigal di bàyyi tere mu ne nag képp koo xam ne ki aju nga ci moom nag mu ne yent meloo ngi yoo xam ne daal la koy wax su fekkente ne mi ngi ci yow na nga xam ne yow la Serigne Touba wax ne kullu muridin bi yëlësu jooju ci nga bokk su fekkente ne wenn melo manqué na ca nag na nga jéem a defar sa diggante ak Serigne Touba léegi bala nga ko soxlaal loola moo di da ngay bëgg sa Serigne ba mu gënal la sa jëmm gënal la sa ndey gënal la sa baay loolu nag bul jàpp ne bi daa la ndax boo demee ci alquran tegtale nga ci boo xam ne bii day wax naan annabiyu awla bil muminina min anfusihim loolu sax mën naa nekk xadis loolu alquran la am na xadis bu wax ne allahu wa rasuluhu awla bil muminina min anfusihim yàlla ak yonentam bi ñoo gën a yey ci seen jëmm yi bopp ci seen bopp loola li muy tekki mooy su fekkee ndigal dikk na lu jóge ci yàlla mbaa mu jóge ci jóge ci ant ba te bi ñu yegg si fekk nga loola ndigal féeroog sa bànneex doon sa lor mu ne lu mu lu mu doon doon sa lor bàyyil la nga nekkoon te jàpp ndigal la ndax ci la sa njëriñ nekk kon foofu mooy tegtale da ngay bëgg ya bëgg bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg sa sëriñ ba mu gënal sa jëmm gënal sa ndey gënal sa gënal sa bàyyi sëriñ Tuubaa mi ni roy te nga xam ne buñ waxee ne dañ koy roy am na ñoo xam ne dañuy wax naan mun noo roy sëriñ Tuubaa ah kay mën nañ koo roy dañuy def kenn suñ kattan waaye mënuñu koo jot mun jot ko lan mënut waaye nag roy ko ma des na ko kenn ku ne mën nga ko roy ci jaamu yàlla kenn sa kattan sa nga fa nga mën a yem su ko defee nag kon Sëriñ Tuubaa moomu day ba mu bëggee yàlla bëgg yonent bi daf ko sàkkal te tegtal dafa wax ne nahaani yahubullahi ni'mal muhayminu anil mayri am maxtiira wal xaqu aqmanu bëgg ma bëgg yàlla moo dox sama digganteeg def lépp lu yàlla tere ndax xam naa lam tere daf koo bañ te ginnaaw da koo bañ tamit bëgg naa ko kon nag bañ bañ le naa ko kon nam ko bañee bëgg gi ma bëgg yàlla bëgg yonent bi moo dox sama diggante ak bàyyi lépp lu yàlla digle ndax xam naa lam digle daf koo bëgg te lam lam bëgg daa koy bëgg la ginnaaw bëgg naa ko yo kon da ngay bëgg sa bëgg bëgg sa sëriñ ba nga la sa jëmm gën a la sa ndey gën a la sa bàyyi nga tekki nag di jëfandikoo ndigalam bàyyi ak tereem muy ñaar nga tekki nag bàyyi ak gaaral bàyyi ak gaaral moo di sëñ bi digle ba noppi nga ne waaye sëriñ bi daa xamul adduna waaye bu bu xamoon adduna nangam ak nangam la ñuy digale yow moom yaa xamul adduna waaye sëriñ bi xam xam ne adduna daa xam ne daa baaxut moo tax mu wàcc ko yow nag nga réere adduna tax nga moo tax nga jàpp ne dara la moo tax nga bëgg ko ba mu ko defee loolu moo di ak gaaral sëriñ bi digle ba noppi nga naan waaye nga ca topp moo di ba rekki ak bëgg te mooy ñeenteel bi rekki ak bëgg bul amuk bëgg bul amuk bañ lu dul li sëriñ bi bëgg te muy sëriñ boo xam ne bii nag dafa mel ci bandub ñetteel bi xam ngeen ne nag lenn lu ci nekk dégg nañ ko ba mu ko defee sëriñ bi dafa daal di jóge foofa dal di ñëw fu ñuy wax xumaat ndax tubaab bi nga xam ne bii mooy tubaab ba yebaloon naaj ji ngir mu war koo lottal si rey ko tubaab boobu dafa bi naaj ji demee nag daf ko nekk lii yëf yéenam xewe mu ne ginnaaw mënu ma ko rey nag kon léegi day naa ko woo fii indi ko fi léegi day fii barab bu naqari la barab bu metti la barab bu tiis la su ko defee kon mbooloo mi duñ ko fi duñ duñ duñ ko duñ ko soxlaal dañu daal demoon ci ko fi ñu daal di indi nag sëriñ bi xumaag wax nañ ne nag xumaag sax fa la sëriñ bi gën a yàggee ci gànnaar gépp wax nañ ne mag ñi léeg-léeg nga gis mag moo xëy dana wax ne am na fa lu mat ñaari at ak lu topp wala sax dina gis koo xam ne dana fa dana wax ne am na fa ñetti at mu ko defee nag bokk na ci xew-xew yi nga xam ne yii nag xew na foofee fa gànnaar fa xumaag jamono joo xam ne ji naar yi réew mi daa bekkoor lool ba bekkoor bi egg ci jur gi di dee tawati dugg nit ñi ba ñuy faatu métti si loole nag tax ah naa yi seen bopp dajaloo dikk jëm si xumaag fekk fa sëriñ bi ngir di ko ci ñaan loo ba ñu dikk nag ku ñuy wax Muhammad ibn al-Mukhtar al-Alawi al-Hasani wax nañ ne moo jiite woon yoon wa bu mu ko defee nag ba ñuy ñëw ba jub sëriñ bi mu nga xamee ne maanaam ñu ngi bëgg a agsi nangoo naa ci sëriñ Hamza du mu wax ne am na bis sëriñ bi xëy suba cooy génne ak xasida indi woon ko ko ne ko kat xasida gi dama la ci def seere ndax am nay gan yu fi ñëw léegi yoo xam ne ñu ma leen tax a ñëw ma bëgg nag balaa ñëwee si nga yëg ko yow ba ñu yegsee ba ko sëriñ sëriñ tudd nee na boobu mu fekk mu jàng ko fekk muy wakkaan xaqan ale naa nasrul mu'minin ba mu ko defee sëriñ bi jant bi toll ci di fenk ba yëkkatiku mbooloom naar ma agsi ba ñu agsee nag ñu daldi wax sëriñ bi ci làmmiñu Muhammad ibn Muxtaar al-Alawi la leen tax a jóg ci ak xasida xasida ga mi ngi ni ma tiim wax na ne jamiu bilaadi lmuslimina juduubu wa amma wa amwaahum qad ammahunna nuduubu biha jiyafu lxasra fa amma idaamuha fa diibun wa amma jilduha fa saliibu fa hum fi tanaafi xayratin wa tadabdubin fa fi kulli yawmin rihlatun wa du'uubu وما وما له إلا الحليم فإنه مكين عظيم الجاه ليس يخيب له طمحت أبصارهم وقلوبهم وهل الحيارى المستطيل قلوب léegi xasida gi dafa nekk loo xam ne mi ngi nii wax gi ci nag ci lan la ñu arab di wéy dafay guddal mbir mi ma bëgg leen ko tekki rek ci gàttal ci wolof Muhammad Muxtaar moom wax na ne bi nekkee ci sëriñ mu ne ko mboolem réew jullit yëpp di dafa bekkoor ndox yi woon ci xur yi ndox yi woon ci biir suuf si yëpp nekk na ba amatuñ leen lu ñu naan ba soo dee xool dafay mel ni ki àll bi dafa wow komm ba mel ni ay médd yoo xam ne yi ñoo fi tasaaroo ci àll bi ba tax seeni yax dafa mujj weex dafa dafa weex ngir bekkoor bi te léegi te ñi fi def kenn ku nekk ñi ngi bëgg a sax fàtte seen borom ñee ñee ngi deng deng ñi gën a mën te waxtu wu nekk ñi ngi tukki ak a ak a dellusiwaat waaye ku tukki ku jël si itam la nga bàyyi la nga la nga fekk fa ngay tukki mooy gën ci sax la nga bàyyi fa nga jóge woon léegi nag njaqare la demee noonu amuñu kenn nag ku ñu xaadimu rasulillah ndaxte xaadimu rasul moom i képp moo fi koo xam ne kii ku am daraja la ci boromam te it màggug cër ca boromam ba lu mu laaj boromam boromam dana ko may te na mu ko bëggee borom bi delloo laajam loolu moo tax lu jël suñuy xalaat yépp yëkk si ko ci yow di la xemmem si di wax di la di la di la ñaan si ndimbal te kat ne la wër ni nit ki su gëlëmee amul fenn fu muy mën a xalaate lu la la ca xol ba képp la te suñu xol doon ko jëm si jëne si ci yow te it noo ngi tàllal suñuy doq jëme si ko ci yow kenn ku nekk mi ngi nas mbiram teg ko ci say loxo bis ni ki tey te it nit ñëpp kenn ku ci nekk xam na bu wér-wér ne amul lenn amul kenn koo xam ne kii mel ni nga xaadima rasulullahi ci wàcc ci kaw ci kaw suuf bis ni ki tey te it noo ngi lay ñaan nag kon ci sa xam-xam bi la sa borom jox nga xam lu ci ci moom laaj ko waxtaan ak moom diis diis lu ko diisal lu ko su lor yi ndaxte mu wuññil lu ko fi saasi ndaxte xam na ne kat kattilikaay yu bind fi mu ngi ci say loxo te it wóor nañ ne yow ku ñu xam ca péyub suñu borom ba te it ku ñu wuy ñaanam nga te it yaay aji ramm ji ëllëg yaay ramm yaay ramm jaam ñi nga jamono jël ëllëg te it yow xaadimu rasulullah ku am daraja nga te it foo taxawee ci buntu sa borom rek boobee buntu ñoo ko ubbi fa saafa léegi nag mun nii noo ngi nii nooy ummatu muhammadin te it yaay xaadimu rasulullahi kon nag feeñalal sa liggéey bi ñu lag yonent bi ci noonu te it giñ naa nag ci sama dund ne kat lii ma lay ñaan wóor na ma ne bala maa jóge fii ma la koy ñaane ci turu mbooloo mi da nga ma ko jox ni ma ko bëggee ba mu ko defee loolu noonu la toppe xasida gi ba egg ci ci fi nga xam ne fi nga xasida gi yem wax nañu ne ba mu waxee loola ba eggal am na nag ab beneen naar boo xam ne bii wax na sëriñ bi ne ko kat ah damaa gént ci yoon wi gént goo xam ne day dañ dama yoon su ma dikkee dana ko nettali sëriñ bi ne ko lu mu doon mu ne ko damaa gént ci yoon wi ah ñu wax ne ñu wax ma ne ma am na laayee sunu borom ji ñuy wax wa kaana haqqan alayna nasrul mu'minin soo ci tarifi ak xasida xasida googee su ko mbooloo mi jàngee fu ñu ko jàngee rek xettali ko mbooloo mi ci ci xasida googee lay nekk ma bëggoon nag nga taaliful mi ci xasida ndaxte le lim lim doon lim doon xalaat nekk ci moom sëriñ bi ne ko toogal tuuti ma dikk dal dem génn dugg ci biir néeg bi dal di jël xasida ga indi yëf ko teg ko nii ñeeñu fasaasa la ko taalif waaye nag li ma ne ko ci séeréem sutu moo di waroon na ko ko moom ci suba waroon na ko xasida gi ci suba xamoo ko ne ko ay gan ngi fi dikk yoo xam ne yi bu ñu dikkee moo leen tax a jóg kon muy wakkaan xaqan xay na nasul moom yi moom yi nangu naa ci yéen suñu wax ne képp koo xam ne kii da ngay borom kër bu ndaw toog ci sa biir kër des bis boo xëyee jàng wakkaan xaqan xay na nasul moom yi ci sa biir kër xamul lay tax a génn di wut si di di dem sa li lay tax a génn sa kër de waaye wuti njël di ca bokk fokk suñu borom dana la jox sutura ak njël loo xam ne lii looy mën a toog ci sa biir kër la ba mu ko defee ba ñu jógee ca loola wax nañu ne fa saasa fi sëriñ bi fi naar yi waxante sëriñ ba noppi rek amulu xiin amulu niir amul dara asamaan si dafa daal di wuri ci biir wuram googee ca la daal di tàmbali di taw fa saasa taw boo xam ne bii dafa daal di do dotti ba tur bi tur yi xur yi yëpp bokk feesandoo mu mel ni taw ba nga xamee ne bii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanoon nañ ko ko ca makkatal mukarrama ci bis caatum bekkoor mu daal di jàkkaarloog boroom ñaan boromam suñu borom daal di ubbi ndox mi mu daal sotti ko fa saasa noonee suñu borom nangu leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy nii mu nangu la Serigne Touba ko fa sar fa fa kumaat benn yi sax àgg ci di wax Serigne bi naan ko dimbali nu kat waxal sa borom ne ko noonu ndox mi taxaw noo soxla woon ndox mi léegi tey bëgg nañu mu ñu soxlaa woon ndox mi ngir loru ca noonu lañ soxlaa mu dañ ngir lom mi ngi ñu bëgg mi ngi ñu bëgg alal ba mu ko defee xew-xew boobu wax nañu ne mi ngi xewee ci mujjug ramadan ci atum at mi ñuy wax jagsasine jëkk la ko jëkkoon nag ci rabiu saani ci atum jagsasine ba mu ko defee amoon na bis boo xam ne bii sëriñ bi génn na ci jàkka ja nga xam ne dafa julli gee ba noppi am na sax ci mag ñi ñuy wax naan bisub alxames la guddi guddi digg digg ajuma sëriñ bi génn jullee gee ci jàkka ji ca xumaat ba jël siwaat ci kër gi fi mu génne ci jàkka jeeg dal di mel ni dal di mel ni da la ko ko yenu ba ci kaw mu ne ko suuf ramaj daane ko sëriñ bi dal di mel ni ku tekk na ko sago mel ni ku toll ci melaw sukuraat ba mu ko defee sëriñ Mouhamadou Lamine Diop bokk na ci ñi nga xam ne ñi teewoon nañ ko moo ko dal di jël ak ku ñuy wax Mouhamadou Lamine Mati ñu dégg ak ku ñu ak ku ñuy wax Mor Xëri Ñang Mor Xëri Ñang ak sëriñ Mouhamadou Lamine Diop ñooy ñi nga xam ne ñoo ko dal di jàkkaatoo dal koy dugal ci biir xëy ma ba dugal ko ci biir néewam mu nekk ca melo waree rek di wëlbatiku ba àgg ci léeg-léeg mu mel ni ku so ku noppalu léeg-léeg mu gindiwaat nekk ca melo waree tiis woowee ba ba ba ñu nodd fajar ci jàkka ji naka ñu nodd fajar ci jàkka ji suñu Mamadou Lamine Diop nee na mu dal di xiqi mel ni ko dara jur toon mu dal di jóg dal dem jàpp dal leen di jiite ci jàkka ji fajar ba suuba ba noppi ba mu leen jiite ba suuba ba noppi ba li siwaat nag mu dal di toog nag dal leen di laaj ne leen xanaa xamuñu la jaaxle de ñu ne ko waaw moom koy jaaxle na lool li nekk woon sax ëpp na jaaxle mu ne waaw ndax xam ngeen lu ko waraloon ñu ne ko déedéet xamuñu ko mu ne ko dara mu ne mu ne dara waruñu ko lu dul de bi nga xamee ne maa ngi jëm si jàkk di julli si sa borom dafa won natt boo xam ne peese naa ko asamaan yi ak suuf si mu ëpp leen doole fuuf ma laaj ko foo ko jëmee mu ne ma ci sa xeet wi laa ko jëmee ci sa ci sa ci sa waa kër laa ko jëmee si ma laaj ko lu tax mu jëmee si ko ci ñoom ak li ma sonn ci moom lépp nee na mu ne ma loolu yi nga sonn ci man te sonn ko ci sa jëmm te ñoom mu wóor ma ne li nga sonn lépp seenu fay ak fayam ñoo ko moom te man dara kenn te defaluñu la dara ci liggéey bi te man kat lépp loo xam ne lii xéewal la gu may jox mbindeef fokk ma sakkal kaw lay natt boobu ma leen bëgg a teg nag moom laa leen bëgg a teg ñu rek mu nekk seenu lay ci xéewal yooyu ñuy war a amee ci yow sëñ bi nee na ma peese natt bi diisaay bi peese seeni xol diisaay ba natt bi ëpp ko fukkeel ma dal di laaj saa borom ne ko man day damaa doon bëgg su fekkente ne manees na ma ko teg bàyyi leen nga teg ma ko te bàyyi leen sunu borom nee na suñu beneen sunu borom ne ko man ne manees na ko fi nga xamee ne julli naa ba noppi bi ci biir bi ma jullee ba sëlmal ah dal di génne ci jàkka ji bi ma génne jàkka ji moom mel ni dañoo peese asamaan si ak suuf si def ko benn bi yéen ne ko sama bopp bi tegg ne ko sama bopp bi diin foofee laa taqalikoog sama sago yan boobu mosuma teqalikoog moom ba ñii nga xamee ni bii ne noonu la ñu noddee fajar noddee fajar gi moom moom moo ma tax a xiqi waaye dafa wàññi yan ba daa wàññi ko waaye ba tey mi ngi tege ci sama kaw léegi foofu nu war see seetlu ne sëriñ bi ginnaaw dafa liggéey ab liggéeyam te ba mu koy liggéey sunu yoon nekku ca sunu borom fay ko fayam te ba mu koy fay noo tax mu fay ko fay googee ndax sëriñ bi noo taxoon muy liggéey léegi lanu ci yàlla sédde la muy néew néew néew néew néew sëriñ bi xam na ne bu nu bu nu ko tegee musiba dal nu sëriñ bi bëtuk yenu waat yenu waatal nu nag nattu boobee kon kay nun li nu war def moo di nan def sëriñ bi muy sunu diine nañ def sëriñ bi muy sunu ngor def sëriñ bi muy sa diine nag mooy lu mu digle dee ko def lu mu tere dee ko bàyyi def sëriñ bi muy sa ngor mooy taxal ci waa këram nii te it ñu gën a la sa lay gën a la sa gën a la sa bay loolu mooy li nga xam ni mu ci ci lan mën a jaar képp ba mën a jéem a won sëriñ bi sunu sunu sunu sunu pay ca loolee bu ñu ko defee loolu dal di nekk nattu boo xam ne bii moo tax sunu borom teg ko ko la ci tegewaat ci ay xew-xew moo di am na ku ñuy wax Cheikh Sidi Mouhamed ibnu Abdouwaat am na bis boo xam ne toog na fi sëriñ bi ca xumaak bi mu jàgg sëriñ bi jóg ñuy julli timis sëriñ bi dikk génn ci kër gi daal di jàpp ay loxoom ci mbaar mi ci wetu jàkka ji ab diir dal di wax kii kii nodd ne ko na nga boo ja jàngal ayatul kursi lu mat fukki yoon te nodd ba mu ko defee sëriñ bi daal di jël salaam nag di jàpp ba muy jàpp ba eggal ñu dal di nodd ñu dal di jëli jàkka ji ba ñu ci sëlmalee nag tenku bi maanaam asamaan si daal di jékki-jékki leer nañ ba mel ni bëccëg ñëpp nag daal di am xalaat ne kon jombul jant fa soowutoon ndax bisub keroog dafa niis ab jant bi feeñ feeñu dafa mel ni kii guddi dafa niisoon lool ba mu ko defee Sidi Mouhamadou ibn Aflaat moom daal topp ci sëriñ bi mel ni ko am xalaat bu mu ko bëgg a wax sëriñ bi daal koy daal koy gendi ko ne ko maa fi jaw fi ka ilal xayr sa dënn bi de li ci nekk ci xalaat dara lu dul lu baax rek la li nga gis lu baax la ba sëriñ bi duggee ba ci biir nag maa ngi koy woolu dal ko ne xanaa leer gi nga gisoon moo tax nga yaakaaroon ci biir dafa gisul mu ne ko waaw man dama yaakaaroon ci biir dafa gisul leer gi mosuloo gis daal jant bu so ba noppi mujj wëlbati ko nag di leeraat mu ne ko waaw ndaxte yow li nga gis daf du leeru gént ndaxte li ci def tegtal moo di man yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi tisbaar jotee moo dikk fi fi man wax ma ne ma tisbaar jot na ma dal dem ci jàkk ja dal di julli bi takkusaan jotee jógu fi takkusaan jot moom wax ne ma jot na ma dem julli ji bi timis jotee itam daf maa wax ne ma jàngal ayatul kursi lu toll ci fanweeri yoon ma dal di gën taxaw ca mbaar ma mooy jir baa fa taxawoon jàng fa ayatul kursi ñaar fukki yoon dal di wax kii nodd ne ko jàngal jàngal ayatul kursi fukki yoon nekk di jàpp ba ma jàppee ba noppi mu àggal dal di nodd mu mu julli ba mu jullee ba noppi nag léegi ngay séen nag daf du leerub jant ndax leerub ahlul badrin la dafa amoon ci ahlullahi waroon gëm yu sell yi koo xam ne dafa nekkoon ci sawu jant koo xam ne dafa amoon ak lot suñu borom yebal ahlul badrin mu doon ñu doon ko xettile ji bañ ko xettile ba noppi nag lañ fi jaar dina ko yëgal ak dina siyaare loola leer ga leerub ahlul badrin nga gis waaye la nga gis du leerub jant loolu dal di nekk beneen kéemtaan léegi nag kéemtaan yi sax xewul bari na lool mun nu cee jeexal benn mën nañ ciy wax di ci wax di ci wax ba ilal abat te du jeex waaye nag lim ci dajalee kon dajale bu wér a wér a wér a wér léegi tey mu wàññi ko ba mu ko defee nag sëriñ bi la lekk fa fa sarsaara nag fa fa fa xumaat te ñu ko wax sax wutul ma ay lu toll ci diiru ñetti at wala bu la neexee ñaari at comme ni ko ni ko mag ñi nettalee teg na ci sax lu toll ci ñetti weer ba mu fa nekkee nag murid yi bari na fa ñu ko fa fekk lool ci diggante taalibe yi nga xam ne yii ñoo nekkoon ci biir réew mi ak ñoo xam ne dañoo amoon soxla ci moom dem di ko fa fekk mbooloom naari fekk na ko fa lool ba fekk ga bari lool ba mu ko defee nag foofii fa gànnaar nag mu dal fay nekk fa sa xumaat day am waxtu woo xam ne bii jamono yooyu Cheikh Ibrahima Fall mi ngi ndar Cheikh Ibrahima Fall nekk ndar am na nag waxtu wu nekk boobu mi ngi woon ci pexem lu lu delloo sëriñ bi mu am fa nag benn tubaab boo xam ne bi day wote ak député am na ñoo xam ne ab député la doon wote am na ñoo xam ne ab maire la waxoon ne moom moom la moom la doon wote. Cheikh dikk fi nekk Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaan loo Cheikh Ibrahima Fall ne ko ñaan gi kay mën naa gaaw su fekkente ne kay mën nga maa fexeel ba sama sëriñ bi ñibbi si kon kay ñaan gi mën danaa ànd ak yow ci politique bi ba lépp sotti waa ji naar bi tubaab bi ne ko man kay su fekkente ne man ngaa. man nga ma ànd ak man kay su ma gañee fokk li ma bëgg danaa ko danaa danaa ko def Cheikh Lay Fall daal di ànd ak moom ñaanal na ko daal di koy boole ku ñëw Ablaye Xaar ñu ànd ci politique ba nekk ci politique ba nekk ci politique ba bés yàlla dogal tubaab ba gañe ba tubaab ba gañee Cheikh Lay Fall daal dem si moom daal koy wax ne ko kon nag yaa waxoon ne soo gañee da nga ma indil sa sëriñ ba mu ne ko sa sëriñ ba sax mooy kan mu ne ko mooy ki ñuy wax Mouhamadou Bamba te tubaab yi génne woon ko yóbbu woon ko Mauritanie naar ba tubaab ba nag daal di jël nag ay kayitam di dugg di génn di dugg di génn ba génneel ko décret boo xam ne bii gouverneur général moo ko def ngir ñu war a dellu si waat Serigne Touba ci biir réew mi waaye nag ki sàttum ñu yóbbu ko fa ñu wax ci yéen jolof def ko fa lu ñuy wax résidence surveillée maanaam tëj ko fa ci ak kër du ko génn. ba mu ko defee Cheikh Ibrahima Fall daal di jël nag kayit woowee dal di wut si xumaag nga bal ko boppam ba mu ñëwee nag baag si xumaag nag fekk fa Serigne Touba dal koy jox kayit wi dal ko wax ne ko kon kat léegi nag na nga dal di waaj ñu dal dem ndax tubaab yi may nañ la ndigal mu nga des ci réew ma kon nag rikki màkke bu fi def mukk nag di sonal taalibe yi ak it di sonalaat sa bopp nan dellu sëriñ bi ne ko ndax am sax loolu yi nga wax dëppoo ko ci sa borom ndax suñu borom jox na ma ndigalul dellu si waaye nag daf maa waxagul wan waxtu lay doon kon nag dama bëggoon nga toog fi nu bokk fi toog ak may tàggoonteeg naar yi di tàggoonteeg waa réew mi ba église suñu borom jox ma ndigal wax nañ ne nag Cheikh Ibrahima Fall ma ngi fàkk ci bisub gàmmo bis ba bisub gàmmo la di bisub ajjuma maanaam di fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmo ci at mu ñuy wax xëgsasin xëgsasin mooy junni ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom xam nga sëriñ mi ngi jóge woon fii ci Sénégal fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmo ci atum xëgsasin diggante xëgsasin nag ak xëgsasin ñii wax na ne juróomi at la ñii wax na ne ñeenti at képp la waaye lu ci mën a xew diir boobu la sëriñ Tuubaa nekk gànnaar ba mu ko defee mu nekk fa nag Cheikh Ibrahima Fall nekk fa ba bis ba dellu si sunu borom door a jox yonent bi ndigalul mu jox Serigne Touba ndigal ngir mu war a jóge nag gànnaar war a ñibbisiwaat ci réew mi kon Serigne bi ma nga fa jóge bisub ajjuma bisub gaaw la jóge woon fii ma nga jóge foofu bisub ajjuma su fekkente ne juróomi at képp la kon juróomi at yi manquéwul benn bis ëppul benn bis su fekkente ne ñeenti at la it ñeenti at yi ëppul benn bis manquéwul benn bis ndax gaawu fukki fan ak juróom-ñeent la jóge woon ci Daarul Manaan jëm gànnaar ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent la jóge xumaat jëm si waat biir Sénégal ci weeru gàmmu ci atum xagsasin diggante xagsasin ak xagsasin ba mu ko defee nag sëriñ bi daldi wax nañu ne dafa daal tànn nag lu toll ci ñaari gaal ndax xumaat barab la boo xam ne bii sorewul ak tefes ga sorewul ak tefes ga maanaam tefesu gi ñu dex gi ñu wax jukk mooy fël li ñuy wax li wala li ñuy wax léegi fëlaw Sénégal sorewul ak moom sëriñ bi nag daal di tànnalu ñaari gaal wax it nañ ko tànnal juróom-ñaar fukki góor ak juróom yoo xam ne yii seen alxuraan rafet na seet loolu nag juróom-ñaar fukki góor ak juróom yoo xam ne seen alxuraan rafet na kon ña mokkal alxuraan seen alxuraan rafetul kon nañuy toll foofu daal fi mën a gis ne jamonoy Sëriñ Tuubaa li dajale woon ci moom li dajale woon fi moom ci mokkalkati alxuraan ak waroon xam-xam mu dajale ci genn kilifa ci kaw foofu ci ginnaaw genn kilifa ci kaw foofu ñu daal di jóge foofu nag mu wax ne ñi mokkal al borom alxuraan nañ toog ci nañ dugg ci gaal genn gi gaal gi jiitu ñu dal dugg ci gaal gi jiitu léegi di dem mu dal di tànnalu it mbooloo mi ci def mu xaaj leen ñaari xaaj bii xaaj nekk ci kanam gaal gi bii xaaj nekk ci gannaaw gaal gi sëriñ bi toog ci seen diggante bii xaaj bi ci kanam mu wax leen ne leen na ngeen di jàng gis mu xulóob xaaj bi ci ginnaaw mu dal di wax ne na ngeen jàng na ngeen di jàng mu waxe bu naafiya sëriñ bi nag nekk ci seen diggante gaalu ñi jàng alxuraan jiitu ba mu ko defee wax nañ ne sax gaal ga gaalu gi sëriñ bi nekk daa gën a gaaw ga alxuraan ja nekk mais doxoon nañ ba mu jàgg gaal gi bëgg a jiitu sëriñ bi moom moo wax kii dawal gaal gi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko toppal ca gee bi nga xamee nag wàcce nañu nag tekkil na ko mag ñi nee na leen la waral ma bañ gaal gii ma nekkoon jiitu moo di gaal gee ma jiitu saa borom laa jiital mooy alxuraan ja ñuy jàng gaal gii ma nekk yonent bi ali muhammad rasulullah alayhi salatu wasalaam moo ci nekk mooy gis bu xulóob bi ñu jàng ak mooy bu naafi bi ñu jàng moom laa àndal yonent suñ boo ama jàpp sàmm di ma jiite yonent bi laa àndal mooy sama wéttal ba mu ko defee nag ñuy dox ñuy dox nag ba jéggi dex ga nag ñuy dox ba jéggi dex ga ña nga egsi nag fu ñuy wax ña nga egsi nag dëkk bu ñuy njëkk bu ñuy wax gaa yi la njëkk a wàcc ba ñëwee gaa yi sëriñ bi sax na fa la toll ci juróom-ñetti fan ci ganale goo xam ne gii waa dëkk ba ñu ngi koy ganale ngan la gu neex a neex boo xam ne gii genn ngan musu naa mel sëriñ bi sax dana di misaal ngan nga misaal na mag ñi ne leen ngan gii de gii nga xam ne moom la waa gaa yi gii nga ganale de mooy la nga xam ne moom laa doon waxante saa borom saa borom waroon ma ko te ba may jóge Daaru Manaan ah te mooy la ma waxoon ne duftul karima wa asaaba lil qara wa asaaba lil qira wa zaala wa la azaalu ka siraaji fil qura mu ne gane naa yàlla mi aji tedd te it neexal na ganale gi may ganale ba léegi tey neexu nganu saa borom googu tax na fii mu toll fu ma nekkati dëkk bu ma nekkati dafay mel ni ki ay lamp ñoo fay tàkk wax nañ ne dëkk boobee muy gaaya ba ko sëñ bi nekkee àggoon nañ sax ci di dal ay kënd yi ci mbedd yi ngir mbooloo mu bari ak bëgg mu mu leer lépp lu ñuy teral li ñuy teral lañ ko sëriñ Tuubaa bi su keroog fa gaaya xasee googu nag mi ngi ko tënkee woon lay mulku samaawaati wal ard bi nga xamee ne nag sëriñ bi dal nay nekk gaaya juróom-ñetti fan yooyee ah mi ngi tolloog sëriñ bi daal di day jóge gaaya nag dal di ñëw fu ñuy wax dagana mu nga fa ñëw ah bisub gaawu bisub gaawu ma nga tolloog ah ñeenti fan ci weer wu ñuy wax awril ci 1907 ah la ñëw gë dagana mi ngi tolloog fukki fan ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rabiul rabiul awal ci jëmbi at ma sëñ bi daal nay jaar dagana ba ñu waxee nag ba ñu ko jaban jaar dagana wax nañ ne boobu fekk na ki ñuy wax tafsir Ahmadou Diop mi nga xam ne mooy bàyyi si Mouhamadou Lamine tafsir Ahmadou Diop boobu fekk na ko mu génn àdduna koo xam ne nag dem na ci barab ba siyaare ko ah door faa jógee nag dal di wut si ndar ba mu ñëwee dagana nag fekk na fa ilimaan yi ñuy wax Maxtaar Saw Maxtaar Saw jamono yooyu mooy ilimaan yi gaaya gaaya la kon ilimaani gaaya Maxtaar Saw moom fekkoon na fa ñuy tabax jumaa joo xam ne ji jumaa joojee ah ak gunoon ci yooyu jamono waaye Maxtaar Saw moom wax na sëriñ bi ne ko ak mbooloo wax nañ sëriñ bi ne ko kat ginnaaw nii nga mel mënoo bëgg suñ jumaa ji nga ñëw fa jullil nu ca jiitanu ca te ñaanal nu ci suñu borom nangul nu ci lépp lu jaamu wax nañ ne ñaar rakkaay yor yor loolu fa sëriñ bi jiite du jullit farata dañ leen fa jiite loolu nag bu noppi lañ fa jóge nag door dem Dagana nag dooram da jàll si nag dal di wut si nag ndar bu ñu nekkee ndar nag mu ngi fa egg si ngoonu dibéer di ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru gàmmo mu ngi tolloog fukki fan ak ñeent ci weeru ci weeru awril ci weeru awril ci 1907 bu mu ko defee nag sëriñ bi dal nay jóge nag kon Dagana ak gaaya ginnaaw bu mu jógee Mauritanie dal di wàcc dinañ ñëw ndar wax nañ ne ba mu ñëwee ndar ci kër Cheikh Ibrahima Fall la dal am na it ñu ne kër gëm daloon du ci kër Cheikh Ibrahima Fall waaye ñaari xew yoo xew lu ci mën di xew ak ganuk Serigne Touba fa ndar moom ba mu jógee gànnaar Cheikh Ibrahima Fall moo ko yore woon moo ko doon ganale wax nañ ne am na fa lu toll ci ñetti fan fa ndar ci nganaleeg Cheikh Ibrahima Fall ñetti fan yooyu nag ba mu jàllee nag la fa dal di jógee dal di war saxaar dugg saxaar nag dal di ñëw fu ñuy wax Louga ba mu ñëwee Louga ku ñuy wax alxaaji Masamba Soxna moo ma dalal am na fa ab diir boo xam ne bii ca diir boobee la dal di wax nag ñi nga xam ne ñii ñooy taalibe yi mu àndaloon ne leen na ngeen ma jiitu nag dem ca yeen Jolof fa Jolof fa nga xam ne fa lañ ma dël bu ngeen fa demee ngeen sancal ma fa kër bala maa ñëw wax nañu dafa fanaan Louga yenduwaat fa dal fay jógee nag dal di wéy dal di wuti fu ñuy wax ngaañax la njëkk a jaar ba mu yegg see ngaañax ma nga dal ci bàmmeelu fa la fanaan ci ma nga fanaan ci bàmmeelu ku ñuy wax Abdal Abdal Abdalla Jeng Abdalla Jeng la tuddoon wax nañ la tax mu dal fa moo di Abdalla Jeng dafay doon ku baax koo xam ne kii ku àggoon ci boromam la te waa dëkk ba réere ko sëriñ bi nag bëgg leen caa labiré moo tax mu wàcc fa ba mu wàccee fa la fanaan feexoon nañu sax ay kéemtaan feeñ na fa te ba fa sëriñ bi jógee lañ doon tàmbalee fonk nag barab boobu laaj Abdalla Jeng boobee sëriñ ba dal fay xëyee nag dal di wuti fu ñuy wax Daaru Njaay ci kër ku ñuy wax sëriñ bu baax ab taalibi sëriñ Tuubaa bu baax bu ñuy wax sëriñ Daaru Xasan Njaay sëriñ Daaru Xasan Njaay nekkoon na di koo xam ne kii ku amoonu xam la ci saahir ak ci baatin nekkoon na taalibu bu jeex a jeex ci Serigne Touba itam nekkoon na di it koo xam ne kii sax Serigne Touba defoon na ko ilimaan fi Darul Xuddoos gii bi Serigne bi dara dem ci géej gi daana fi jiite Serigne Darou Hassane Ndiaye moomee nag moom la Serigne bi dara loon nag fa fa ñuy wax Darou Ndiaye ba mu fa demee dafa dal di yendu fanaan fa dal fee xëyee dem fu ñuy wax kokki ci kër ku ñuy wax Cheikh Modou Mame Diop Cheikh Modou Mame Diop kenn ku nekk ku ko xamul it war ngaa xam soxna Faati Madu Maam mu tedd mi nga xam ne mooy waajuru Cheikh Mouhamadou Bachir Cheikh soxna Cheikh Fatimatu Maam mooy mooy baayam ba mu ko defee mu dal fay fanaan yendu fa dal fay jóge nag dal di dem fu ñuy wax kër kër Madu Amina do- fu ñuy wax Doriga ci kër Madun Samba Diop sëriñ Cheikh Madun Samba Diop Cheikh Madun Samba Diop moom itam ku ko xamul war ngaa wax war ngaa xam ku ñuy wax soxna Mbéye ak soxna Tuuti ñooñu mooy seen waajur ñooy kii mooy waajuru sëriñ Mamadou Moustapha kii mooy waajuru soxna Muslimatu Mbacké kon su waajur soxna mus soxna muslimatu Mbacké ak waajur soxna ak waajur sëriñ Mamadou Moustapha sëriñ Cheikh Amadou Samba Diop moom mi mooy seen waajur ca Dore ga la dëkk sëriñ bi it dal fay fanaan yenduwaat fa dal fay jóge dem fu ñuy wax kër Basine fekk fa ku ñuy wax Mou Mouhamadou Amina Xuma am Mouhamadou Amina Xuma Diop Mouhamadou Amina Xuma Diop moom mi nag moom mooy waajuru soxna Aminata Diop ak ki nga xam ne kii soxna Aminata Diop it ak waajuru sëñ Mahmoudan ñoo ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ak baay soxna Aminata Diop ak waajuru sëñ Mahmoudan Diop ñoo bokk lépp mu dal fay. toog ab diir moom itam fanaan fa yenn dal fi jóge dal di door a àgg nag fu ñuy wax ci yéen jolof ma nga fa àgg nag ci bisub dibéer di juróom benni fan ci weeru rabiu saani maanaam rakk ci gàmm ci at mu ñuy wax xëg sasin léegi mi ngi tolloog ñaar fukki fan ci weer wu ñuy wax ci weeru ñox awril ñaar fukki fan ci weeru awril ci 19 1907 la sëriñ bi àgg ci yéen jolof fekk na kër ga noppi mu daal di tudde kër ga nag tudde ko daru rahman sëriñ bi daal di nekk ci kër ga lu toll ci ay at wax nañ ne mat na ñaari at ba ñett ba at ñuy wax sëg sëtin sëg sëtin mooy junni ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar mu dal fay sañ ci geneen kër ci wet ga goo xam ne gi diggante ñaari kër yi sëreewuñu wax nañ ne ñi ne mat na kilomètre ñi ne manqué na kilomètre kër googee mu daal koy tudd daaru xuddoos ba mu ko tuddee daaru xuddoos nag ah lu tax mu sos kër gi weesu wut mbooloo mi nga xam ne ni moom ñoo ko fekkoon mbooloo mi dafa bari ci kër gi ñuy wax daaru rahmaan ba sëriñ bi jotug jaamu yàlla ca la ko war defee amatu ko mu daal di suñu borom dal koy digal nag mu sañ ci geneen kër nag tuddee ko daaru xuddoos dal fay dem nag nangoo naa ci mag mu wax ne kër googee sëriñ bi sañ tuddee woon daaru xuddoos sanc ko muy sanc bu yees ba moom daana fa nekk waaye ñun ñëw ci mag ñi ñoo faral dem am na ci mag ñu faral dem waaye